solution ñoo leen di may seen émission Taku Show. mbokki téléspectateurs yeeg euh, internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax fas yéene dellu si waat ñoom ñaar ñooy ñooy ñooy ñooy perturbé ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar dellu soit ci kattanu yàlla ci seen télévision Walfadjri ak seen site bi lee di Walf Net ak différentes plateformes Walfadjri seen émission takk show dellu soit tey nag ci alxames yi dinañ ko ubbee seen rubrique lu ay di njàmbat Omar Bun Xatab Gueye fas yéene seq waxtaan ak Cheikh Bara Ndiaye ñu fas yéene waxtaanee Serigne Abdou Aziz Bara dinañ ci waxtaan ci journée yi nga xam ne war nañu ko amal fële ca CICES ci kanam tuuti lay doon Alaaji mbay Mbengue ba tey seqaat waxtaan ak Cheikh Bara Ndiaye boroom def gis tey moom émission bi moo ko moom eh, bu nu ca paree victime du net ca la son bu di doog a ñëw nag ñu ndar képp bi la émission <laughs> Omar bun Xataab Gueye maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay ziar kenn xamu ko moo toll noonu. tey laa <laughs> am ñaari plateau. <laughs> ñaari rubrique. ñaari rubrique. maa ngi gu nangu sonal borom ñun ñoo doon ñaan dat am ñaar di leen nuyu bu baax di leen ziar. Mhm. di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu sunu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax. di la nuyu ajaratu di la ziar baax di la ñaanal jàmm di ñaanal El Hadj Ndiogou Meng saa mhm. di ko ziar baax moom tamit euh, taalibe sëñ si di mu sëriñ Abdoulahan Mbacke di ko mhm. nuyu di nuy sëñ bu baax mhm. di ko ñaanal mu yàgg fi gën a wér di nuyu soy bu Diop di ko nuyu bu baax lu ne di rafet na soy bu di la ñaanal mu tamit euh, suñu borom yokk xéwal di nuyu Cheikh Baara Ndiaye sama xarit borom <laughs> def gis Cheikh Baara borom manifestation ba <laughs> <laughs> di ko nuyu bu baax Ndiaye di ko nuyu kat yi sama xarit di nuyu njaboot gi yëpp di nuyu ñi mu àndal Baye Mbaye ak ñoom Abab ñëpp ñu ngi leen di nuyu. di leen ziar bu baax a baax di nuyu sëñ Sidou tay bu ñaax tam Cheikh Samba Ka di nuyu waa géej waaye Kër Massar yëpp di leen uh, ñaanal jàmm. di nuyu tamit uh, ay soppe Cheikh Baara Cheikh Baara moom bariwul fooy dem te gaa yi na la nuyul ma ko am na benn docteur docteur Guèye mi ngi nekk fii CTO. tey dañoo gisee rek nag ku yittewoo woon Cheikh baare la ndeysaan mu ne daal incha allah soriwoo leen fi ngeen dëkk sax du ñàkk bis dina la seet si kon nuyoo bi egg na di nuyu ñëpp di leen euh, ziar bu baax a baax ci kanam rek comme ni ko ajaratu waxee ñu waxtaanee sëriñ Abdou Aziz baare ak journée culturel bi ñuy waajal le 9 mars incha allah si ses dinañ ci ak euh, Cheikh Baara Ndiaye mu xamal ñu jëmm ji. waaye tamit dellusiwaat euh, ci bis boobu ñi jagleel ci di Serigne Abdou Aziz Bara incha allah. incha allah rabbi maa koy nuyu bu baax moom euh, son yi bu Diop Diop maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay ayal def nga de nga jël. waaw waaw waaw yii de waaye waa ji bëgg lu yomb nag la laa dajal nag maanaam bëgg maa jaay ba pare naan ma jàllale promotion bi. xam nga jaay waaw bul jàllale. ba pare naan ma jàllale promotion moo ne man nag des fois dama koy def nag. Ah. waaw des fois ma jënd sama tissu. ñawlu may euh, kii ko. boo ma mayee ñëw ma may la wax rek. dëgg la du la wàññi dara jóg def ko rek. dëgg la kon kooku yi nga xam ne kenn xamu ko maa ngi koy nuyu moom mi ñëw ah. ñaw bi. <laughs> xam na boppam ginnaaw bi ñu sante yàlla ñu ngi dellu si waat nga xam ne mooy solution am mbégte mhm. jàkkaarloog uh, yéen nuyu Omar bun Xataab Guèye uh, fitin maire de Kër Massar ñu ngi koy ziar baax di wax ni yow ak Baye Mbaye ki leen ñëw même bu ngeen soreewul i tamit Euh, loxo yi bokk na macha allah gis naa mbagg yi niñ ko génnee baat bi yam na melul comme baatu Youssou Ndour macha allah ah. Youssou euh, maanaam Youssou day sol lu valori lu rafet ñëw bi rafet mais problème mu baat lu Youssou Ndour am amul benn problème waaw ñu koy nuyu bu baax taayam dafa lu rafet lay sol macha allah di lañ ziare yow tamit tey maanaam wane nga ni suñ bëggante gi ñu bëggante gën wan nga ko ci yére bi maanaam gis nga ko feeñ nga ci kii bi doore bi dugg na ci biir macha allah ki nga wax nag ñu ngi koy nuyu moom xarit Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad Mbacke xaw naa góor góorgóorlu tey euh, macha allah góorlu na waaw. góor na daal xaw naa góorgóorlu. waaw góorgóorlu na tuuti rek sëñ Baara. waa ko ñawal tey dafa augmenté lim ko ñawal xam nga sëñ Baara waa ji ko xam nga xam nga soxor kele dafa am gaa yi dañu naan soxor kele. kon kii dafa soxor kele. ah ko ñawal. Hmm. waa ji ko ñawal gis nga poos bi ni mu ko def. <laughs> gis nga saa ñëwee sa wate moo tax bëgg xoolal. saa looy ree. yow yow yow non Modou jëlal lii Modou. lan la Modou di jël lii Cheikh a dina nuyoo buy nuyoo ñu jël. waaw déglu rek xaaral rek xoolal gis nga nii daal poche bi ñu daal di ne. lii Viva. macha allah waaw ba pare gis ni mu def baat bi maanaam ki ko ñawal nii. am na da nga dégg ay soxor kele soxor nangam bandi mike. mais kii si soxor puso ak siso la. macha allah di wax ni kon ci kanam tuuti ñu ñëw ci victime di net di ko wax ni moom xaw naa góorgóorlu. moom waaw xaw naa góorgóorlu tuuti rek ndax moom ree na fi ree yoo xam ne. ak lu mu ree laa xam ko teg. alaaji maa ngi lay nuyu di lu xew lan la lu xew li waa gars yi di wax lu xew. Eh, Adja ñu ngi lay fay di am mbégte ak kontaante ci yow. Uh-huh. di dem ba Touba nuyu xalifa général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaan mu yàgg fi tànn ak wér. amiin yaa rabbi waaye ñu ngi nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit. waaw sii di mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke ñu koy ñaana Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér. di ko bu wér nuyu bu baax sëriñ Xaadim ne ca kër ga ak njaboot ga yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm. nuyu sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarim wax la di nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew ñu ngi leen nuyu ñu ngi nuyu maman Diayna Ba Fall. Mhm. kooku sunu maman la waaye ñu ngi nuyu monsieur Lo kooku sunu tonton la suñu am ci ñëpp mbégte ak kontaante nuyu nañ Omar bun xataat macha allah di am ci moom mbégte ak kontaante. Mhm. sànq bi sooy bu di wax Cheikh Bara moom ci boppam. yëgu yëgut ñaw bi waa c'est que avant bi son bi di wax rek Cheikh Bara bi mu xoolaatee yére bi dafa xam ne yaa xoolaatay léegi nag son bi mi ngi koy wax pour defaral ko mais Cheikh Bara xoolaat na ñaw bi léegi rek tëyeer xam nga. mais saa ñaw bi euh, ci ne. non dafa sacrifié tëyeer bi. lu tax nu mu ko sacrifié. gisoo li Cheikh Bara def dafa sacrifié gisoo Cheikh Bara. mais dafa boo ko wax muy óbbali rek. <laughs> <laughs> waaw mais lii loo ci mën a génne. vraiment. non Cheikh Bara tey dafa xam ne tey dafa xam ne nekk Cheikh Bara fi mu toll boo gisee rek xam ni moom tey. wax dëgg fa yàlla. wane na ni ci waar wala jóge quoi. maanaam ah, nañ xaar kon mu hmm, xool ko rek bu baax. man de li mu sol rafet na dafa aar bëti c'est lii da ngeen jàpp ni aar la xam nga. aar moo doy waar. am na benn waay boo xamante ne bi tableau bi mu defar maanaam da doon peinture ay tableau di defar tableau yu rafet kenn jëndut benn bis mu mer rek sànni peinture bi ci tableau yi. tableau baa gën a cher. gars yi ne tableau bi aar la. maam Cheikh Bara noonu la def fi mu toll nii. mais lii lu ci lii du aar du dara. mais alaaji man mënoon naa génne ay paille ji li sol nii rek. yére bi yére ji génne ci sax. man man fii ma toog mën naa génne faay léegi nii. kan yow génne na. faay ci li nga sol te mënu koo génne. la moo tax mooy faay. <laughs> waaw ah, léegi kon nuyoo nga ba pare ah. waaw d'accord Cheikh Bara maa ngi lay nuyu li nga sol def lu rafet. maa ngi lay fay ba teg ci mbaxane Cheikh Bara bi vrai la wala bi original la mbaxane dégg naa dafa am fal. original ah, bi original. ah euh, di wax maa ngi nuyu Biba mi nga xam ne moo nekk ñaari tari. waaw nekk tailleur bu mag. waaw donc di wax soxna bu. Hmm. bu ëllëgee boo jëndatee sa yére dama koy nëbb. parce que fa am ñoo xam ne dañuy xool. di la jéem a di la jéem toppandoo quoi. waaw dégg nga. léegi nag dee ko dee ko daal. baax na ah dara xew di nuyu euh, di nuyu waa kër sëñ Darou Assane yëpp sëñ Abdou Khadir Ndiaye nag mboolem njabootu sëñ Darou Assane Ndiaye yëpp di wax tey fi amaloo tey damaa jàpp damaa war a waxtaan quoi. Ah. xaw ma jotu ñenn ñi. ah la <laughs> kenn ñi laa amut seen jot. <laughs> acca ñu ngi noonu ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ni ma leen. sa mbaxana original la. sa ñaw waaw sa ñaw moom. mbaxana bi est-ce que bii mayoo mayoo ko ko wala bii bokkum ci loolu. wala mm, mm, mayoo ko ah bii moom mayoo ko. Ah. kon baax na mais nag saa lim sa rafet na. mbaxana mi daa am facture de. leer la bii dafa am facture de. waaw ah oui facture. Modou ngay laaj yi ma sol lan la. Ah. kii di la ci jëndal nag. kan kii. laaj ko ku ko watat laaj ko fa ma ko jëlee. laaj fu métti laa ko jëlee laaj ko fa ma ko jëlee. kon affaire yi am na am na code wax fan laa ko jëlee. non nañ ci def code garaaw sëñ Baara. garaaw dafa ko fekk ci fu doy. yàlla baax na xëcc ko mun ma jóg. di ko loxo yi ko indee gën loxo yi ah. <laughs> laaj ko waaw. ah d'accord Modou nee na. Hmm. saa jóg mbaxane deux mille la daan jënd. Hmm. léegi mu indi yu cher yi. Hmm. saa doxu ci yu cher yi. waaye lépp mën naa nekk ñàkk xam. ah Issa mbaxane la la doon sol Macky Sall. <laughs> Arya. Mbacara Macky Sall nee na wax na dëgg Mbacara Macky Sall waa Régis wax na dëgg. mais maa ko maa ko jëlee ci 2000 yi maa ko jëlee indi ko fi. ma jëlee ko ci Macky Sall Mbacara Macky Sall yi. ma jëlee la ci 2000. ah maa la jëlee ci 2000. kañ la ànd chauffeur bi kañ la ànd. bu leen weerante yàlla baax na yàlla baax na dara xewul. baax na di di nga ca dee waay yàlla baax na saa bala nga koy sacrifier bu sacrifier la. <laughs> ñu dem jëli lu ay di njàmbat <laughs> Sadio bu bàyyi ma Omar kàddu gaa ngoog waaw tey euh, kàddu mag ñi ñu am euh, gan goo xam ne du gan gaa gaa gi kon la Cheikh Bara Ndiaye moom mooy de mooy def kàddu mag ñi Cheikh Bara mooy def kàddu mag ñi kon tey nag xam naa dinaa changer mbir yi victime du ne tey ñëw pajum cosaan mujjee non Cheikh Bara mënuñu koo tegle ci plateau bi muy euh, muy rubrique rek. Cheikh Bara daam lu koy xaar de. ayca nan ko nan ko ŋàcc rek nan ko waxloo tey. Cheikh Bara Ndiaye di ko jaar baax nag di am mbégte teew. Euh, di waxtaan ak moom euh, ci Serigne Abdou Aziz Bara. Mhm. ci journée culturelle bi ñuy waajal le 9 incha allah di le 9 mars. ñu fa fas yéene ci ànd ak moom Cheikh Bara Ndiaye nuyoo nga ba noppi. Euh, ba comme niñ koy defee saasu ne rek euh, sëriñ Abdou asis Baara lan bëggoon nga wax ni moom mooy kan balaa ñuy egg ci bis bi. waaw di wax tey ki ñuy waxtaane euh, mooy sëriñ abdu Aziz Baara doom la ci Cheikh Mouhamadou lemin Baara moom sëriñ Touba waaye nag di koo xam ne yoonu murit miin nañ ko waaye guy mbind tamit miin na ko. parce que mën naa wax ne amul genn kër ci guy mbind kër yëpp moo xam kër sëtub sëñ baara wala kër doomi sëñ baara ji góor wala ju jigéen nga dem fa te boo ne Abdul Asis du am ku la wuyu maanaam kër doomi sëñ baara joo dugg rek boo nee Abdul Asis rek danañ la wuyu. waaw te xam nga. maanaam loolu li ma ci jublu mooy. xam nga nit bu bokkee ci famille. dañ naan diw buñ ne diw baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax mm-hmm. nit bu dee danga bokk ci aw askan man ngaa baax waaye danga am ñoo neex am ñoo neexut mm-hmm. am ñu la bëgg am ñu la bañ am ñoo déggool am ñoo déggoolut mm-hmm. waaye nekk ci famille ñëpp nangul la ñëpp bëgg la ñëpp déggoog ñëpp loolu sëñ Baara exceptionnel la ci ndax nit ku nit la koo xam ne maanaam mbooleem ku mbokkal bàyyi ci waa kër sëñ Baara ak lu mbokk ga euh, ah, maanaam moo xam bokk ndey ak baay wala bokk baay waaye ñoom ñëpp kenn ku ci nekk kilifa nga ko def maanaam def ko sëriñ ba ñu ci ëpp ci ñoom seeni taaw moom lañ ko tuddee ba ci keroog kiñ ñu doon waxtaane muy sëñ Abo Madiyana mii moom sëñ Baara ab taawam sëñ Abdou Aziz la ko tudde moom mooy sëñ Aziz Abo sëñ euh, Basiiru Baara mii dëkk parcelle sëñ Bas Baara taawam bi fa nekk tey bi fi sëñ Bas a jógee sëñ Abdou Aziz Majalis moomu sëñ Abdou Aziz Baara lañ ko tuddee. sëñ Abdou Laat Xujja ab taawam sëñ Abdou Aziz Baara lañ ko tuddee muy sëñ Abdou Aziz Laat noonu la demee mën nga koo topp di ko topp euh, ba njabootu sëñ baar gi yëpp mat ku ko ci tuddewut sab taaw tamit maanaam bi nga amaatee doom ji ci topp rek moom nga ko tuddee kon. mën nañoo wax ne bu fekkonte ne ci mbaax rek la ñuy waxtaane ku nga xam ne képp koo bokkal bàyyi maanaam jël na doom tudde la loolu rek maanaam mën nga naa wane ne kon borom jikko la te it ku déggoo woon ki mbokkam la. di jëmm joo xam ne jàmbaar la ndax euh, dafa nekk sëtub sëñ waaye nag daanaka am dafa am cërub doomi sëñ Touba ndax moom 1914 euh, maanaam moo féete ak mag sëñ Souhaïbou moom sëñ féete ak mag sëñ Saliou féete ak mag sëñ Abdou kon kooku mag la ndax ku mën a mag ñooñu kon day bokk ca mag ña. ndax mi ngi juddu 1914 la gane àdduna nekk doom ci sëriñ Baara te sëñ Baara doom jim njëkk am mooy sëriñ Muudu Baara sëñ Muudu Baara moo nekk taawub seex Mouhamadou lemin moo fi nekkaloon sëñ Baara 1936 bi fi sëñ Baara jóge ba 1952 ci la génn àdduna sëñ Abdou Aziz Baara doon na ko sëñ Abdou Aziz Baara bi muy doon sëñ Baara 38 ans la am la am doon kër baayam bi muy jóge àdduna 90 la 1952 la toog ba 1990 38 ans tamit la toog ci xalaaf xilaaf ak baayam. Hmm. maanaam bi muy jël xilaafa gi 38 ans la am bi muy li mu toog ci xilaafa gi tamit 38 ans la. 38 hmm. ans yooyu tamit ku ne xam na ne euh, sëñ Sidi Maxtaar mi nga xam ne euh, moom moo ko wóotu. bi fi sëñ Abdou Aziz Baara jógee 1990 ndax kii ñuy waxtaane nii mooy mage 1990 la génn àdduna sëñ Sidi Maxtaar doon ko ci xilaaf ak sëñ Baara xam nga sëñ Sidi Maxtaar 2011 la jël xilaaf ak sëñ Touba mais 90 la jël xilaaf ak sëñ sëñ Baara. sëñ sëñ sëñ euh, sëñ sëñ euh, Sidi Maxtaar moomu rek sëñ Abdou Aziz Baara daanaka mage na ko fukki at ak juróom. Mhm. kon da xam ne. Eh, koo xam ne sa rakk ji topp ci yow rek magee nga ko fukki at ak juróom kon ñeneen ñi ci des daanaka da leen a mat bàyyi. Mm-hmm. moo tax bëri na ci njabootu sëñ Baara yi ndax sëñ sëñ Baara tamit 1936 la génn àdduna. dafa yàgg. Mm-hmm. bi mu fi génn àdduna li mu fi bàyyi ci ak njaboot ñoo xam ne ay xale lañ maanaam taxut ñu mar mag lool ba ci sëñ Sidi Maxtaar mii bi fi sëñ Baara di jóge daanaka eh, du mag du mag lool dara du woon mag. Mm-hmm. moo leen yar. Eh, sampal leen kër takkal leen soxna looloo waral it ñu ci bari bu ñu amee doom tuddewaat ko ko ndax daanañ dañu koy jàppee bàyyi duñ waaye duñ ko jàppee mag boo dee xool tamit ci njabootuk sëñ baara jigéen gi ba ni mu fiy génn àdduna kenn ku ci nekk maanaam daf lay yar yóbbu la kër ba noppi maanaam yoral la salaire boo xam ne moom xam nga ñu góor ñi sax mën nañoo dem ami taalibe ka lii ne doomi sëñ baara ju jigéen ju mu mën a doon foo mën a nekk sëñ sëñ Abdou Aziz dafa daggaloon ab salaire boo xam ne bu weer dee mu fekk la fa ci sa biir néegu nga mën a nekk ak foo mën a nekk loolu sëñ Abdou Aziz doon def bi sëñ Abdou Lahat ñëwee di di di di di lotissé Touba tamit maanaam moom la joxoon ndigal ne ko guy mbind kon yaa koy yaa koy yaa koy lotissé moo lotissé guy mbind njabootu sëñ baara gi kenn ko nekk kër ga nga dëkke moom moo ko dagg ne la fii nga nekk noonu guy mën a tëddee sëñ Abdou Aziz moo ko tërale noonu nekkoon koo xam ne tamit ab baykat la woon parce que Sénégal moom mi ngi mi ngi mi ngi juddu 1914 boo xoolee 1900 euh, bi muy am 22 ans. Euh, ci la 26 1926 rek ci la ci la ci la ci la non damaa ju 1936 defe naa. Euh, defe naa 36 côté yooyu bi mu am 22 ans daal ci la samp Bousra. dëkk boo première dëkkam. Hmm. à l'âge de vingt deux ans la ko samp. ñu tegaat ci daanaka ci at yooyu matut dara 1944 mu samp dëkk bu ñuy wax mbaam jigaan. Hmm. moom it ab tool dëkk la boo xam ne daf cay bay. Busra nekkul côté Guinguinéo waaw Busra waaw mooy Busra gi nekk bo ci ci ci ci euh, Saalum rek waaw. Hmm. maanaam mu jóge ci Jumaada maanaam euh, Touba Jumaada mu sanc ko 1946. bi mu demee ba mu jug dundam ci la samp. dëkk bu ñuy wax jumaada mm-hmm. Sénégal tamit moom mooy mbàkke mbàkke bi nga xam ne moo fi njëkk di bay wàllu ceeb mm-hmm. ci bay bayin moo xam ne risaa tool dagg fa tool yoo xam ne nii di bay ceeb te booba maanaam si ñi ngi toll ci di liggéey jumaay Tuubaa mm-hmm. tool yii yëpp daf koo sampoon di bay ngir jàppale sëñ Fàllu ak sëñ Muudu Mustafaa ci liggéeyu jumaa ji parce que bi muy samp dëkkam yi sëñ Muudu Mustafaa mi ngi fi woon mi Busra bi mu koy samp booba ci xilaaf sëñ Muudu Mustafaa la samp ko di liggéey di jox sëñ Moudou Moustapha ba sëñ Moudou Moustapha jóge fi mu dolliwaat ci ay tool. Euh, yu mel ne jumaa daak yooyu di ko bay di dem di yët sëñ Fallou. Mhm. muy def ci jumaa ji. bu dee wàllum tamit euh, kon Sénégal tamit dañuy xam ne nit nekk ndaw te réewut mu samp dara ndax ndaw lu am vingt-deux ans maanaam samp ay tool samp sanc ab dëkk di bay. ba sañcaat ay dëkk ci alaas bi lépp daanaka matul matul 40 ans ci la samp dëkkam yëpp kon da ngay xam ne kooku euh, maanaam liggéeykat la te boo xoolee Sénégal tamit mbooleem ñi ñu fiy tagg liñ leen di taggee bañ koy def ci aas bu gàtt la woon. ndax ku mel ne euh, Aline Sitoé Diatta. li mu woote bi mu koy woote ñaar fukki atam. daanaka matut. ku mel ne ñoom euh, Albureeg ba ci Cheikh Ahmadou Bamba mi ñoom ñëpp bi ñuy liñ samp bi ñu koy def kenn amu ci ñoom ñeent fukki at yu mat. Mm-hmm. kon senegal ndaw lu tàmbali di liggéey tàmmoon nañ ko léegi nag lañ bëgg a tàyyeel loo yëkkati ñu ne la gone nga. waaye ba ba Sénégal di Sénégal nit bu amee ñaar fukki at ba ci ñoom sëñ Saliou mi bi ñuy samp ay kër di sampi tool kenn ci ñoom làqut fanweeri at. Mm-hmm. kon moom loolu la bi mu amee ñaar fukki at ak ñeent rek bi mu amee ñaar fukki at ak ñaar rek ki la tàmbali. Mm-hmm. dugg ci waaru àdduna. tukki tamit ci sénégalais yi ko njëkk a def. Mm-hmm. ci la bokk dem na Europe dem na Amérique dem na Asie. dégg nga réewi Afrique yi tamit dem na ci fu ci bëree bëree bëri. Mm-hmm. parce que 1985 la sëñ Abdou Aziz mujj a dem Amérique. Mm-hmm. kon da ngay xam ne kooku yàgg na faa dem. bu dee tamit bi ñuy Senghor bi mu fi nekkee amoon lante ak moom ci wàllu politique jëflante bu rafet. Mm-hmm. waaye mosut a ci nag ci mbirum politique. Abdou Diouf tamit am lante woon nañ. ndax sëñ Abdou Aziz mi moo njëkk a woote màggalu Mbàkke Kajoor gi ñu defal sëñ Baara sëñ Muudu Baara ko daan woote waaye Taysiir la ko daan defee. Mhm. sëñ Muudu Ba sëñ Abdou Aziz moo ko jëlee Taysiir yóbbu ko Mbàkke Kajoor. Mhm. jumaay Mbàkke Kajoor tamit moo ko tabax sanc ko 1987 bi mu koy sanc Abdou Diouf bi mu koy jullee boog Abdou Diouf dafa jóge fii Ndakaaru dem ca jullee ga. Mhm. bi mu ci jógee Euh, ñu teg ci ñetti at mu génn àdduna Abdou Diouf jóge na fii moom tamit demaat ba Touba ca njaal ma fekkee ji ko ba mu demee témoignage bi mu def ci moom mooy sëñ Abdou Assis mooy koo xam ne maanaam mësta fàttaliku bor boo xam ne yoreel na ko Sénégal wala mu mën a wax ne moom Abdou Diouf benn njariñ état du Sénégal mas na ko amal sëñ Abdou Assis. Mhm. waaye dafa nekkoon nag sénégalais boo xam ne liggéey mbay ak jaamu yàlla ak di woote ci yoonu sëñ tubaab yi loolu lañ ko xamee. bokk na ci tamit ci ay qualité am mooy néew na dëkk booy dem ci Sénégal. lu dul fekk nga ñi sëñ Abdou Aziz Baara tabax na fa kër. boo demee Louga am na fa ñetti kër ba ñeent. boo demee Ndakaaru gi am na fi ñetti kër. boo demee euh, euh, euh, Kaolack Mbàkke dégg nga Ndar amut benn dëkk. ci Sénégal boo xam ne man man ngaa wax ne dëkk bii moom. sëñ Abdou Aziz Baara tabaxu fa kër. Mhm. dëkk yooyu yëpp nag la mu fa doon mooy. Mhm. dem fa samp kër def ca jumaa def ca daaray alxuraan maanaam di yaatal taalibe yi di di di di di am luñ mën a fuñ mën a dundee seenu taalibe. Mhm. ak fuñ mën a dunde seen diine looloo waraloon muy wër Sénégal fu nekk mu samp fa daara fu mu tabax fa kër def ko daara. kon kooku mooy koo xam ne euh, su ma yemoon ci lii rek di nga xam ne hmm, jàmbaar la ju mat jàmbaar. waaw mu ngi fi jógee nag atum 1990. taawam doon ko muy sëñ euh, euh, sëñ Moustapha Mbacke mu sëñ Abdoul Aziz Baara waaw bi mu fi jógee sëñ Moudou Baara doon ko bi fi sëñ Moudou Baara jógee sëñ Abdou Karim Mbacke bu Mbacke Bari moo ko wuutu tey nekk ci xilaafa gi di ko ñaanal yàlla mu gudd fan te ànd ak wér. moom lañ ko tuddee. moom lañ ko tuddee. moom mooy moom laa mu muy wax moom laa moo tax bi mu waxee bi nga waxee. 90 yàggul moo moo taxoon ma jaxasoo. waaw moo taxoon ma jaxasoo mm-hmm. macha allah. yooyu mën nga yeggalew ma. Mm-hmm. waaw waaw euh, xam naa ni euh, lépp du ci xaj. Mm-hmm. jaar jaar beeg yooyu parce que suñu kilifa yi moom ay géej lañ. waaw lépp du ci xaj léegi nag. Euh, ñu jàppal ko bis di journée culturel mhm. bii mooy ñaata édition ak bis boobu lu waral ñu jàpp ko ci Ndakaaru. Mhm. Euh, rawatina bisu le 9 mars 2024. Mhm. waaw sëñ Abdou nag xam nga bari na ay bis ndax njabootam yi yaatu nañ te fu nekk ñu ngi ko fay defal bis am na sax bis boo xam ne mooy bis bi gën a mag ñu koy def ci Touba. mais bii yoon dañuy def journée culturelle mooy dañuy waaj ci euh, bis fii ci foire Dakar samedi incha allah. le 9 mars. ci lañ war a def bis bi. Mm-hmm. Euh, bis bi tamit day àndak ñu bind ci ab téere mooy lii ma doon waxtaanee yëpp ay jaar jaaram. parce que waaw parce que jàpp naa ne nit koo xam ne. li li mu am ci ay turandoo daanaka jege na junni wala mu ëpp ko. Mm-hmm. kooku war ngaa poser question kan la ak lan la doon dund. ba tax kenn ku jóg rek tudde ko doomam. Mm-hmm. voilà daayira Abdou Assis bi defe naa ne man li ma ci xam ëpp na junni ci ay nit. Mm-hmm. ci ñoo xam ne maanaam ci dundam lañ ko tuddee waxuma la nag ñi nga xam ne ginnaawam ndax man mii di wax ak yow euh, sama mag ju góor ji ma topp ci moom sëñ Abdou Aziz la tudd mm-hmm. sëñ Abdou Aziz Baara la ko sama baay tudde woon defe naa ne néew na sax koo xam ne man damay wax nag doomi doomi sëñ Baara yëpp ko tudde doom waaye néew na taalibeeb sañ Baara xàqan bu amut doom bu amutum Abdou Aziz mm-hmm. loolu moom néew na lu ma koy gis daanaka ñëpp ndax loolu mooy ni mu doon doxee la rek yaatal ak ak ak ak ak mën a jariñe ci wër ci wërsëgam bi nga xamee ne tamit sëñ saaliwu jóge na fi ci jóge googu ma àggalee loolu rek mooy sax furla bi nga xamee ne sëñ Abdou ah, sëñ Abdou Xaadir dafa génn àdduna sëriñ saaliwu Mbàkke nekk ci xalifa gi ah, dafa dem ànd ak njabootu sëñ baara gi dem siyaare ji pour jébbalu bi mu toogee ci kanamu sëñ saaliwu dafa wax ne ana siiri moxtaar ñu ne ko mu ne ñu ne ko ma nga nële mu ne yegsil nii mu ñëw ba ci wetam mu ne ko kii de mooy sama rakk moo topp ci man. Mm-hmm. daal di koy ne daal di jébbalu ci kanam sëñ Saaliw ne ko ah, jébbalu nañ ñoom njaboot gi yëpp bi mu delloo ca kër ga bés boobu la ko ñëpp mujj gis. waaw defaatul daanaka ab semaine ci kaw suuf daal di génn àdduna sëñ Sidi Moxtaar moomee daal di koy wóotu ci jal bi. maanaam moom balaa muy dem. balaa muy dem dem na ci sëñ Saaliw jébbalu jébbal wane ki koy wutu ba noppi maanaam dénkaana njaboot gi daal di ñëw fatu bi mu génnaatut kenn gisaatu ko bis boobu la ko nit mujj a gis. kon kooku maanaam noonu la doxee. léegi nag bis bi nag dafa nekk ngay ñëw ci bis kon may bañ mu doon lu mën a ton bu daa am la ci wax. baax baax na baax na. waaw surna culturel la. Mhm. boo xam ne sëñ Jiili Mbàkke mu sëriñ Abdou asis Baara. maanaam sëñ Abdou Aziz mooy baayam waaye nag yaayam sëñ Modou sa Dieng ko jur mu nekk koo xam ne Baye Fallou sëñ Abdou Aziz la dafa koy daf koy liggéeyal ci lépp euh, kii moom mooy sëñ Abdourahman sëñ Abdourahman mii mooy rakki sëñ si moom tamit moom ak ak magam ji ñu wax sëñ Jili ñoo bokk di ko def euh, waa kii mooy sëñ Abdourahman kii moom kii moom mooy sama sama xarit man sama xaritu bu may wax xaritu benn bakkan maanaam kii la mhm. kii yàlla dafa dogal man bi ma demee guy mbind euh, kër baayam laa dëkkoon ñu bokk nekk ay tuut tànk maak moom ñoo ànd football football ak foog bëreeg def yëfi gone yëpp ba yàlla dogal ba tey jii may wax ak yow maanaam ñi ngi ànd te dara mos dox suñu diggante. <laughs> te mu nekk nit koo xam ne tamit maanaam man euh, sama sëriñ la waaye nag euh, xam naa ne maanaam nit mën naa fonk nit ba doo maanaam xaw ma man dafa naa naan ab sëriñ mun na fonk taalibeem ba foofu daal. Mm-hmm. parce que ñu may jàpp kaso dafa ñëw sama kër fajar ne ma man ne damaa gént police jàpp la. ma ñëw atte atte atte mënuma ci dara bañ yóbbu la fekk booba samedi bi samedi bi samedi samedi bi amadi amee samedi bi muy le samdi la 3 man moom ñoo waroon ànd génn tukki réew dem Amérique ma ne man de amadi am moo tax mënumaa dem bay boo ma bàyyi rek parce que dëkk bi toll nii mu toll ak ni ma mel ci dëkk bi may génn di dem day mel ne daw ndekete man samedi boobu ma demoon maanaam dimanche ci ci lañ ma jël si man yóbbu ma moom dafa egg dimanche Amérique taal téléphone gis ñu rek mu ok waat béyee mu wàññi ko ñëw. waaw kon loolu pour wax la rek maanaam suñu diggante maag moom. waaw noonu la demee léegi nag moom mii ko euh, muy sëñ Abdourahman mii moom ak sëñ Jiili Mbàkke magam ñoom ñooy ñooy amal journée bi fii ci si CICES nekk le neuf. dañuy bind ab livre ak tàmbali fondation boo xam ne dëkk yi sëñ Abdou Aziz sanc ñu di leen dimbali ci courant ak ndox ak ak dund ak ay ay hôpital ak lépp luy social ci loolu lañ bëgg a tàmbali. moo waral ñu woote bis bi première édition la nag waaw di ci woo nag maanaam mbooleem euh, taalibe yi sëñ baara yëpp ndax bisub sëñ Abdou Aziz la waaye ci boppam mooy sëñ baara ndax dafa doon lu baara mate ko kon képp koo xam ne njabootuk sëñ baara nga njabootuk sëñ Sidi Maxtaar njabootuk sëñ Bas baara njabootuk sëñ Xaadim Awa Ba njabootuk sëñ Moodu Aysa ak foo mën a nekk maanaam bis bi sa bis la ñu ngi leen ci woo euh, di ci woo man itam samay mbokk samay xarit ndax Euh, ni ma ko waxee nii léegi rek sëñ Abdourahmane mii di ko def maanaam moom mooy caatum sañ Abdou Aziz bi fi bàyyam di jógee moom juróom-ñetti at la am dégg nga caatum sëñ Abdou Aziz la. waaw sëñ Abdou Aziz it am na ci lu yéeme mooy sëñ Abdou Borom dër bi la ko sëñ Touba tuddee te sëñ Abdou Borom dër bi juróomi at la magee sëñ Abdou Aziz. rek mooy sëñ Baara. sëñ Baara moom doomi sëñ Touba la. mais sëñ ab sëñ Abdou Borom dër bi juróomi at la magee sëñ Abdou Aziz. sëñ Baara maanaam dafa am dafa am doom xool rakkam joo xam ne juróomi at la am mu tuddee ko ko loolu day wane maanaam tabax mbokk ni mu nekkee woon ci kilifa yi mhm. waaw waaw allah ah. waaw euh, kon samedi le 9 incha allah. Hmm. ñu fas yéene rek euh, daje si ses. Hmm. mu doon journée culturelle journée nag bu ñu ko waxee bëccëgu yendu lay doon. kon euh, mi ngi tàmbali 11h mi ngi tàmbali 10h 11 di war a jeex la 17h ci ngoon. incha allah kon bernde yaag yëpp moom macha allah bernde yi moom dana mat lépp dana mat. incha allah ci woo ñëpp. man man ak saa ña nga fa. waaw incha allah kon di gërëm baax Cheikh Bara Ndiaye ajaratu kon kàddu gaa ngi noonu samedi le 9 le allah 9 mars. 2024 di siyaare di siyaare mm, sëñ Sidi Ahmed doomi sëñ Abdou Assis la di siyaare sëñ euh, Cheikh Assis doomi sëñ doomi sëñ Abdou Assis Baara la sëñ Abo doomi sëñ Abdou Assis Baara la ak mboolem njabootu sëñ Abdou Assis Baara gu góor ak gu jigéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ci jataay bi ñu doon waxtaane seen way jur ñu ciy nuyu sëñ Abdoulaye mu sëriñ euh, mi mm-hmm. ngi jooyta noppeegunu ayca mi ngi noonu ñu dem jëli pajum cosaan Alaaji kàddu gaa ngoog jërëjëf ajaratu Betty Mbow am mbégte di am kontante di del seeg yéen ci rubrique bu mag bi nga xam ne moom la ñu pajum cosaan ñu ci ànd ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis borom ñaari rubrique yi macha allah ñu fas yéene ceex waxtaanee lépp loo xam dafa jëm ci pajum cosaan waaye itam ñu waxtaanee ci lépp loo xamante ni bi dafa jëm ci wàllu actualité nga xam ni Sénégal dañ ko ci bàyyi xel di ko déglu ndax am na ñoo xam ne nee nañ li xew ci bés ay bés yi ngir ñu gindiku ci fawu seex Bara njaay toog wax ñu déglu soog a xamaana fan la ñuy teg seen tànk rawatina ci jamono ju lëj ji Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñi ngi lay nuyuwaat. waa ñoo ngi lay nuyu. alaa gis naa ñoo di wax auzu billaahi mina seytaani rajiim wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala falaa taxlamu nafsun maa min qurati ahyunin jasaan bi ma kaanu yamaluun maa ngi nuyu képp ku ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew di nuyu Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général de Mouride di ci teg soxna Bali Mbacke Mountakha di nuyu sëriñ Abdoul Samad Mbacke mu Cheikh Souhaïbou di nuyu sëriñ Basiru Mbacke mu sëriñ Abdoul Khadir di nuyu sëriñ Moustapha ibnu sama sëriñ di nuyu soxna May Mbàkke bindu Cheikh Sidil Maxtaar di sama waajur di nuyu sëñ Abib Diop ak sëriñ Xaadim Diop mu soxna May waaye di nuyu euh, sëriñ Muudu Xaysa Mbàkke mu Cheikh Sidil Maxtaar di nuyu sëriñ Xaadim Mbàkke mu Cheikh Sidil Maxtaar sëriñ Abdou Samad mu Cheikh Sidil Maxtaar ak sëriñ Ateex ak sëriñ Ahmadou Maxtaar Mbàkke mu Cheikh Sidil Maxtaar ak sëñ Jiili ak sëriñ Abdou Latif ak mbooleem njabootuk Cheikh Sidil Maxtaar gépp Euh, di nuyu Moulay Hassis Guèye bu baax di ko ziara euh, di nuyu sama nijaay Serigne Khadim Lo Gaydel borom ndaam ak képp koo xam ne ñu ngi seetaan rek waaw di nuyu Abdou baaji di bàyyiwu seex Baara Badji ak yaayam ak ak yaayu Cheikh Baara Awa Tamba waaw. jërëjëf Cheikh Baara macha allah Cheikh Baara dañ koy tàmbalee li xewoon fii ci Aslem Grand Yoff euh, muy seen mitin bi ngeen amaloon ginnaaw gi mu daadee tas. Baye Assane sax nee na moom payaas ba la la bay fekk nee daal bi bitit bi daal bi ko gars yi tasee ma nga la fekk payaas ba ak yëf yi nga xamante ni bi yëpp xew na maanaam yéen opposition bi li nga xamante ni bi daal gis nañ ko euh, mu jaaxal lool askan wi euh, yëf yi nan la demee noonu euh, mitin ba ak ñan ñoo yoxosu yow ku la jiitu woon ak koo jiitu woon Cheikh waaw meeting bi day meeting bi nag neex la def wax dëgg yàlla ndax xam nga eh, wax dëgg yàlla ñi ko tas maanaam xaw nañoo jàppale tuuti daal ndax bàyyi nañ ba mu def ay quinze yooyu uh-huh. ba mu xumbu daal ba neex gaa yi di di way rek ñu jékki-jékki xeer yi jolli uh-huh. waaw xeer yi nag jolli na wax dëgg yàlla <laughs> waaw léegi nag kenn ku ne nag am na foo jaar <laughs> waaw <laughs> man nag dawuma waaye waaxu naa waaxu góor mu dëgër waaw waxum góor daal wax. waxum góor waaye nag yaay gis naa nag kilifa ci opposition boo xam ne li ma xel bi ma rombee. nee ah. <laughs> naa ko kii kii kii kii la waroon def wutoon def politique kii nu mu tuddati athlète. athlète la waroon kooku kooku athlète bu ko defoon def ci carrière. Ah. féet tët tët. vitesse la la waaw xelu bakk xelu bët <laughs> kilifa la ci réew mi nag. Ah. waaw. ah day daal waaw waaw. bu la romb ak xel. déedéet déedéet bàyyi doon rek. déedéet déedéet. <laughs> waaw euh, mais yëf yi noonu ni mu demee noonu. waaw ni mu demee loolu daanaka nag du lu garaaw. Hmm. parce que boo xoolee fii actualité bi toll ak fii élection yi toll. Hmm. nga mën a jël fukki candidat ak juróom-benn. waaw ñu hmm. ñu mën a bokk dajaloo. di def conférence de presse. bokk dajaloo di dem conseil constitutionnel def ay recours mën a bokk sax dajaloo meeting politique. loolu boo xoolee di nga xam ne normalement boo xalaatee nii rek da nga naan wërta mën a nekk. Mm-hmm. vraiment parce que wax dëgg yàlla tamit politique mënuma wax a wax a wax. waaw ba ñi ba ñi bokkati intérêt di ànd. Mm-hmm. te opposition bi tamit vraiment kenn ku nekk da am sa yoon woo nekk di dox. boo mm-hmm. xam ne bokkul sa moroom yoon wu ngeen jaar. waaw dégg nga donc kon su demee ba euh, ñu mën a dajaloo ñun. waaw di di di def ay ay ay manifestation donc ba candidat yëpp daje fa. loolu Euh, jàpp naa ne man am na solo daal. am na solo waaw te manoon naa nekk loo xam ne tamit du yomb. Mm-hmm. dégg nga. waaw ci guddi yi ñu toll. Mm-hmm. léegi nag euh, bañ defee keroog conférence de presse man maa ngi ko doon junj. waaw maa ngi doon wax naan nañu bañ nekk di kenn ku di yooxoo sa morom wala di def dara. boo xoolee man sama sama wax sax foofu laa ko jëmale. Mm-hmm. boo xoolee tamit bi may jël kàddu ci meeting bi wax naa ne. Macky Sall daf ñu bëgg a aaye place de l'Obélisque léegi. waaw ah. donc boo xoolee léegi da ngay ñëw ay Grand Yoff ak ay parcelles ay ruqo ñu doog laa nangul. Mm-hmm. dégg foofu nag kër yi day jege xam nga du place bu mucc ay lool lool ci wàllu manifestation. waaw ah. léegi nag pour tas ko dafa yomb. Mm-hmm. parce que boo xoolee meeting bi li ko tas lépp matul dix personnes. Mm-hmm. waaw fële lañ taxaw ci seen ruq rek xeer yi ñëw. waaw ah. léegi booy bu ñu bëggee dem lijjanti ci ko kenn ñi daw ñi jaar rek meeting bi yàqu na. looloo ko yàq. mais nag euh, FDD moo ko woote woon muy suñu mouvement bi ñu mm, nag ñoom maam Biram Waaj ñoom Coro Mandela ak Maxu jëkkëru Coro. waaw ak ñoom Babacar Mboup ay Serigne Saliou Guèye ñun la woon. Mm-hmm. après nag ñoom F20 FDD ak ñëpp tamit F24 ak euh, aar suñuy élection bu ñoom professeur Babacar Gaye ñoom ñëpp ñëw. wut jàppale ñu ci. mu nekkoon matin boo xam ne vraiment mbooloo mi. Mm-hmm. dafa ëppoon barab bi. Mm-hmm. loolu la rek. loolu la waaw waaw mbooloo mee ëppoon mbooloo mi dafa dafa maanaam dafa ëppoon foofu quoi dafa ëppoon foofu parce que booy xool li nekkoon ci terrain bi li nekkoon ci mbedd yi taxaw moo ko ëpp fuuf mhm. waaw d' accord mhm. jërëjëf Cheikh Bara Cheikh euh, defe naa ni dinañ ñëw ci il faut ñëw ci li nga xam ne mooy actualité bi nga xamante ne bi tamit xew na fi ci pénc mi muy mbirum may Maimouna Ndour Faye agression bi nga xam ne agressé nañ ko biñ ko agressé it gis nañ ni euh, am na ñoo xamante ni bi ñëw nañ daal di yëkkati ay kàddu yoo xam ne mel na ni ñoom joxoñ nañ ab parti boo xamante ni bii daal moom la ñu tuumaal ci mbir yi am na koo xam ne sax dafa tudd tur comme ku ci mel ni Madiambal moom wane na ni euh, parti bi nga xamante ni bii daal ñooy kii ñoom ñooy def violence yeeg yooyu noo jàngatee mbirum Maimouna Ndour Faye bi li nga xamante ni bii xew na ak ñi nga xamante ni bii wàll si nañ ku ci nekk yëkkati ay kàddu am noo xamante ni bii noonu nga waxee. loolu nag war naa jaaxal ku ne. Hmm. mooy Maimouna Ndour Faye dañ ko agressé yàlla na yóg ak jàmm ba kanam desu ci waaw yàlla euh, deret moom bu génnee rek mooy tiis am na hmm. mais dañoo xëy ñu ne dañ laalale asamaan si ak suuf si hmm. parce que may mun a lañ agressé te barki démb gis nga fii ñu jàpp maam biram waaj ak Pape Matar Diallo dóor nangu signalu euh, wal fajiri defe naa loolu limit lu garaaw la ci presse euh, ba ci ndaw Seneweb la ñu jàpp ko mbéj dóor gaañ ak yu dul jeex yoo xam ne mi ngi am tam musta am may mën a nag du journaliste bu ndaw accord waaye mbir mi dafa am lu ci rax mooy politique waaw eh? xam nga président Macky Sall dafa waxoon day bàyyi Sonko ci vendredi boobu ci vendredi bi waaw ah après minuit hmm. waaw bi muy dem yi daf na woon nañ ko bàyyi ci ginnaawam waaw moom mu bañ ko fekk ci dëkk bi hmm. ba wax leen ne leen vendredi après minuit bàyyi leen ko balaay fajar. waaw léegi nag vendredi matin ñu xëy soo war a génn vendredi ci minuit vendredi matin ñu yeewuwaale ne ñoo agressé Maimouna Ndour. Hmm. léegi nag comme ñoom. Ah. njëkkoon nañ koo def président réussir ko. Ah. ñu ne nañ ko defaat. nañ ko defaat. parce que dañ ko njëkkoon def président parce que li am mooy dama lay wax benn affaire mooy. président ah. ba mu bëggee bàyyi soo ko dafa yàgg. ah bon. bi Sonko ci grève de la faim. waaw sëñ Muntaxa moo toog ba mu yàgg mu ne moom dafa yërëm Sonko. waaw daal di téléphoné Macky Sall. ne ko damaa bëgg moo mu di gerew nga bàyyi ko bala cee la nee na xew. Mm-hmm. président daan ne Macky daan ne daan sëñ Muntaxa su bàyyee soo ko waxee mu bàyyi gerew bi. Mm-hmm. ma bàyyi ko. Mm-hmm. sëñ Muntaxa yónnee ca Sonko. waaw Sonko bàyyi. waaw man ki ma leeral lii mooy sëñ Abdou Samad Mbacke mu sëñ Sohaybu. waaw. moom moo toog ak sëñ son sëñ sëñ Abdou sëñ Muntaxa ne ko. Mhm. Ousmane bàyyi na gerew ba. waaw te ba tey Macky bàyyeegul mu ne ko wol ma ko. Mhm. sëñ Abdou Samad ci téléphone am mu woote ba jot président. jox ko sëñ Muntaxa ci téléphone bi. waaw mu ne ko Ousmane kat dakkal na gerew ba. Mhm. kon léegi mu ne ko président ne ko danaa ko bàyyi. te danaa waxtaan ak moom. loola ca boori màggal ga la. waaw. ba loola amee président ñëw ba wax ak Maham Diallo mii ne ko bàyyi ko. Mhm. ñoom Amadou Ba ñi nga xam ne candidature Amadou Ba da leen a intéressé. Mhm. ñoo yemale dee dem Sawara ak président bàyyi bàyyi bàyyi Ousmane Sonko. Mhm. xataraayu ci boo gisee njirim toogoon ca. Euh, plateau Pam Ngagne Ndiaye. waaw naan Sonko dinañ ko bàyyi léegi léegi du yàgg même Clédor gisoon naa muy def révélation yooyu. Mm. booba information boobu lañ jotoon. information bi ñëwoon booba loolu la woon muy ma su Macky Sall waxoon na na ko bàyyi ndax dafa wax sëñ bi loolu. waaw waa këram ne dee moo leen gënal Sonko génn. Mm. Macky Sall mënut a demaat ci sëñ bi na ko bàyyiwuma. waaw te mënut a jéggi waa këram. Mm. mu far bàyyi Touba. waaw dematu fa boo xoolee màggal ak léegi ñemeetu fa ndax dafa rus sëñ dafa rus waaw màggal ak léegi tegu fa tànkam te jotut sëñ bi téléphone sëñ bi boo gisee ba jenn jamono sëñ Muntaxa naan euh, bu benn politicien ñëwati ci man waaw booba looloo ko naqari mooy li ñu ko dugal ba mu dugg ci waaw dem ci Sonko ne ko defal lii dem ci kee neex ko ñu jekk ko ci dara xamu ci lu xew moo tax mu ne ñi seeni affaire man xawuma ko dañ lay dugal ci dara ba nga dugg ci te kilifa moom xëy génn ca te kilifa moomul lool daan na génn naa ci seen moo taxoon mu naan bu fi kenn ñëwati Ah. dégg nga loolu la woon léegi nag bu président waxaatee tey bàyyi leen mhm. ñu gis affaire bu may mën a nduur fay bi dañoo yaakaar ne loolu mën naes na cee jaar laxasu ci hmm. pour maanaam bàyyiloo waat ko comme nañ ko bàyyiloo ci bu njëkk ba ndax boo xoolee bi ñu ñëwee sikk sàkkawuñ dañ na sonkoo la président na seet li muy waaj a def waaw waaw loolu lañ wax waaw li muy bëgg a def ñi ne ko seet parce que hmm. ñii seen i mbir nangam nangam hmm. loolu lañ ci jublu woon moo tax affaire may mun a nduur fay ñu yanu ko rek. waaw te koo wàccee. Mm-hmm. voilà affaire sonk tamit. ñu naan ñoom ñoom Bart ñu naan noo diil nangam nangam te Sonko yàlla xam na ne fii laa la koy wax. gis naa barki mu Jibi Gueye Ndiaye di ko wax. ne ne Atepa ak Sonko amuñu lu ñu wax ñoom ñaar. waaw Atepa bi muy wax ci RFM man waxagut ak sonk da doon waaja a wax ak moom. da ko doon waaja a wax ak moom. waaw waaye Atepa nag dafa def lu lu grandeur mooy Macky Sall nee na ko escroc gis ne dafa war a jàppale Ousmane Sonko jaral na ko mu dem approché Macky Sall pour jéem a dox. Mhm. mais bi muy wax RFM ak ak yi waxagut ak Sonko da doon waajee wax ak moom. Mhm. mais jàpp na ne comme lu baax lay def. waaw mën na ko siiwal. Mhm. pour mu gën a baax rek. Alioune Tine mësta am seeti Sonko. permis bi amu ko. waaw mais tamit mu ngi dem di seeti Macky Sall di wax ak moom toujours. mais li génn xale yi. lu mel noonu la rek. man mii dox naa ci luy bay bëgg a dee. ndax man. gis nga lii xew nii moo tax sama xel dem ci sax bi bi ma euh, sëñ Abdou Samad sax naa ko tudd rek moo ma wax ne ma lii am na ci lii moom ma ko nettali moo ma waxal boppam ne ma lii nii la demee mm-hmm. nit ñee ko yàq waaye sëñ bi doxoon na ci ba muy bëgg a sotti nit ñee ko ñoom ñoo ko yàq nee na comme nag ay nit doo yàq mm-hmm. jàpp naa ne bu ci ay nit doxee tam ñor leen mm-hmm. dana sotti dana sotti ma ne ko kon nu may def dem naa fay ba ci Cerno ma daani taal toog ak moom waxtaan ci bi ma fa jógee ma dem seeti sëñ Bas seeti naa sëñ bi ci boppam sax waxtaan ceeg moom kilifa gu mag gi sëñ Muntaxa waaw jóge fa dem ci sëñ Bas sañ Bas ba ma fa demee maa ngi fa dem maa ngi àndoon ak Amadou Diop doomi maam Aram Mbàkke mi waaw bi ñu yeggee Talla Sylla fa laa ko fekk mhm. ñu julli tisbaar te julli timis timis waaw si jaada gi ñu doon jullee timis maag sañ Bas mhm. man nag moom ak yàlla suñ boroom toog dix ba une heure mhm. di waxtaan ci mbirum Ousmane ma xool nan laa ko ci sàkkoo ndimbal nan laa koy convaincre ba mu jéem ñu cee doxal lu compliqué la woon nag mais waxtaan woowu jàmbalee dix neuf heures ba ba vingt ba une heure du matin mm-hmm. après ci la ma sëñ Bass ne waaw lii de jar lu mat a dox la danaa ci dem ci président fii ñaari fan mm-hmm. ba mu fa demee waxtaan ak président waaw su ma juumul président waaw léegi ba mu jógee foofa ñëw ne ma léegi ñëwal ma ne ko mën na ma ànd ak ku bokk Pastef ndax mu nekk témoin ñu xam ne maanaam du mbirum affaire affaire famille daal maanaam mbirum mbirum Sénégal la ma dem na El Hadj Malick Ndiaye nañ dem sëñ Bas. Hmm. far barasaleem bi moo taxoon mënta dem. waaw mu booleem ak Ousmane Baro. Hmm. nu dem tuuba ca sëñ Bas toogateeg moom wax ak moom wax ak moom wax ak moom li ma lay wax ni Ousmane yëgu ci dara. waaw yëgu ko. Hmm. musuma ko koo wax musuma musuma cee wax dara ci moom damay dox li ma war a dox parce que man Ousmane du nekk ci kaso bi. Karim Wade Touba génne ko. Khalifa Sall Touba génnee ko. Sonko nekk ci kaso bi li ma am Touba du ma ko utiliser pour génne ko kaso. man sëñ Bas dikkati wooluwaan ñu ñu dellooti. waaw ba muy ñeenti yoon yoo xam ne sëñ Bas taalee na otoom Touba ñëw ndakaaru toog ak président delluwaat Touba ba muy ñeenti yoon parce que lu génnee Sonko kaso ak lu génnee détenu politique yi. jaabanteem yooyu nag. yow xam nga ne loolu mënut a jur sero. Mm-hmm. waaw ginnaaw yàlla. waaw maanaam ci la përi wàgg bi ñu njëkk a génn looloo leen génne mën na maa wat ci yàlla sañ tubaa fii ma toog nii mën na maa wat ci sañ tubaa Mbàkke Ousmane bi boo nañuy génn télé bi la ko yëgee yëgu ko yëgu ko ah. parce que bu fekkonte ne li lay wax ne preuve bi mhm. bu fekkonte ne Macky Sall maanaam Ousmane la waxal pour bàyyi xale yi comme xalifa mi ñu laaj question sax mën na cee déggaale loolu bu fekkoon Ousmane la diilal waaw Ousmane lay woone ko dinaa bàyyi mhm. mais Touba nga dem ñaan ko mu may leen mhm. Touba la woo ne leen dinaa bàyyi genn wàll gi parce que defe naa mille quatre vingt trois la reconnaître na ay nit ni politique lañ. waaw mu ne dinaa bàyyi genn wàll gi boo xoolee bàyyeegun na juróomi téeméer. waaw noonu la affaire bi demee man Touba lañ ma ko waxee ne ma président nee na dana def naa boo xoolee sax bis bi gone yi di génn nangumaa ñëw ci télé bi ndax déggoon naa ko ñetti fan avant te bëgguma woon a wax mu yàqu ma ñëw ma moo tax bis alxames jooju boo xoolee dama absenté fii. Hmm. noonu la affaire bi demee soo ko yëgu ci dara. Hmm. doxu ci waxu ci dégg nga ñi pour ñu naan day diil xalifa nag maa ngi sax jàdd thème bi waaye xalifa moom moom na xam ne maître Khassimou Touré moo bàyyi ba sëñ taxaa ñëw dakaar mu dem ci mbàkki yu fay ne ko nañ ñaan sëñ bi ñu génne xalifa bala dem ñu demee maître Khassimou Touré waxtaan ak euh, mbàkki yu ñu dem waxtaan ak sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa ne du génn dakaar te xalifa génnut mm-hmm. xalifa fii ne xamul lu ko génne boo tax xalifa ba mu génnee kaso avant muy dem këram dem dem dem masaalik ndokkeel mbàkki yu fay léegi nag moom xalifa nan la mën a nangoo nekk ci kaso mm-hmm. ab sëñ bi dox ba génnee ko te moom yëgut tinut ba pare bëgg a gëm ne Sénégal ku fi génn kaso da ngaa diil hmm. na xam ne moom sëñ Muntaxa moomee bëggoon lu baax hmm. man lu baax ba dem ñaanal ko ndimbal ci ci ci président ba ba mu bàyyi ko sëñ Muntaxa mooma moo nekk nii ba tey la mu bëggoon lu baax loola loolu la bëgg ba tey hmm. na mu ko defee woon ci xalifa rek la ko defee waat tey dem ci dem ci Macky Sall weñaar loxoom na ko da ngay bàyyi ñi loolu dong la léegi nag ñu bëgg ci taxaw jàpp ci naan day diil ak day day combine combinut diilut mm-hmm. Ousmane moom wax dëgg yàlla maanaam lan ma waxoon ne lan euh, lan yusibana ilaa ma kataballaahu lanaa mm-hmm. fekk boobu maa ngi tiit lool ci mbiram waaw jaaxle la lu ne ma proposé ko ko tee ñoo woo oh, diw tee ñoo def nangam tee ñoo dem def ngi mu ne ma lan yusibana ilaa ma kataballaahu lanaa mm-hmm. loola la Ousmane gëm waaw firi ko mooy lu yàlla bindul pour mu am du am waaw ah. lu yàlla bind pour mu am. day am day am <laughs> moom loolay philosophie. Ah. <laughs> waaw waaw. macha allah Cheikh Bara macha allah am na solo eh, Cheikh Bara eh, Omar wax na ko sànq daal ne ñaan gu nangoo sonal borom ne paasan moo ko doon wax dañ doon ñaanu dat ñëpp naan dat bi dat bi dat bi bañ ne leen dat yaa ngi da niñ ko boo ko tegalee day doyat la leen <laughs> waaye dat yaa ngoog léegi dat yi fi mu doon dat yaa ngoog léegi fi mu doon dafa mel ni daal. sànni nañu ñaari dat noo jàngatee mbir mi am na ñenn nag ñu gëmut ni élection dana am parce que dañ ne dat yii ñu datee est-ce que ay vrai dat la noo jàngatee yëf yooyu. waaw léegi li am mooy. maanaam dafa am ñaari décision yu génn démb. Mm-hmm. benn décision bi ci Macky la jëm mooy tontoom parce que Macky Sall laaj ci ñett. Mm-hmm. mooy après la deux moom nan lay def. waaw nga mm-hmm. Euh, maanaam euh, est-ce que date 2 juin bi d'accord nañ ci. Mm-hmm. dégg nga mm-hmm. ak intérim bi maanaam ndax dina ko mën a seere ginnaaw la deux maanaam diggante ñaari weer yooyu ñu war a yokkaat ci élection yi est-ce que dana fi mën a toog pour seere ko. Mm-hmm. conseil bi tontu ko. mais tontu bi ñu jox Macky Sall amul date. amul date daf ko gàntal rek. mais amul date. léegi bu dee candidat yi nag six candidats yi dañoo bindoon moom. waaw wax Macky Sall ne ko da ngay def li ñuy wax crasse. waaw mooy Macky Sall dañ koo digal. ne ko defal élection jàppal date moom jàpp ko. léegi conseil bi day constaté ne crasse mooy jëfewul ndigal lii. waaw après moom prérogative yi ko yi ko yoon may mooy substitut mu mu jàpp ci dat moom am na sañ-sañu bu makki Sall nanguwut a jàpp dat moom mu jàpp dat léegi nag dafa constaté crasse après mu jàpp dat hmm. daal koy jox conseil bi daal koy jox candidat yi hmm. léegi nag pour ñu am xel mu rafet rek mooy Macky Sall bi muy dugg conseil des ministres amaana yëgut ne conseil bi jàppoon na date. que moom tontu li mu jot amul date. moom mu fixe le 24. conseil bi bi muy tontu ñee moom mu fixe le 31. léegi nag Macky Sall comme moom décret am génnagut. su ko neexee man naa deltu gannaaw. Mm-hmm. ne man. Euh, léegi décret bi dama koy def ndax dafay def ñaari décret mooy décret bi convoqué nit ñi ne ñëw leen watee. daa mel ni conseil bi nangu na koo fekk de defe naa. waaw loolu de ñu ngi koy wax. maa ngi koy dégg te jàpp naa ne sax loolu mooy am. Mhm. waaw. donte la 31 bi baaxoon na. parce que mooy tax candidat yi laa yërëm. parce que lu mu néew néew seen une semaine boobu ñuy jël. waaw mën na bokk ci élection yi. Hmm. te itam danañ leen may ñu préparé wu pour mën a tàbbi ci campagne parce que bu dee la 24. Hmm. normalement suba gannaaw suba rek da ngay campagne. da ngay campagne da leen di bett daal. Hmm. voilà te mënoon nañ ko def la 31 ñu mën a jël seen 22 jours 21 jours ba mu mat. ba tamit dana am temps pour mën a defar seen oto defar seen i dafa nekk ci daal. voilà léegi nag. pas mais daal xam naa ne man conseil bi jàpp naa ne mën naa am tourner euh, bindaat rek parce que xam nga loolu wax la maanaam dañ naan conseil bi nee na mais li am solo mooy conseil mm-hmm. day bind day bind maanaam loolu droit la xamuñu wax bind lañ xam mm-hmm. su bindee nag léegi def nañ ko la 31 le 24 rek mooy le 24 la mm-hmm. su neexee Macky Sall tamit mu bàyyi le 24 am moom daal di fixé ci date bi kiy wax parce que bindagul décret yi mën naa convoqué kon. Mhm. Euh, maanaam bisu élection bi ci kii bi ba noppi fixé date boobu. waaw mu nekk mu nekk décret. Mhm. waaw xam naa nag élection yi moom bii paa ci koor lañ jëm. ci koor parce que le 10 rek normalement le 11 dañuy woor. Mhm. am na conséquences nag moom woo élection koor yi moom. ah am na président moom am na raison bu bari ci ñun. Ah. ñett am na conséquence de. am na ñetti ah. conséquence ah. waaw ñett yan la. conséquence bu njëkk bi ci waa Pastef la. ci waa Pastef waaw ah. mooy Sonko daa ragal koor de. dafa ragal koor. xam naa ci moom ragal koor koo xam ne. Mm. <laughs> mas na maa yënd ak moom <laughs> mas na maa yënd ak moom mu woor de waaye xam naa ne Sonko ko ko. Ah. ñu defal ko ko kii campagne nocturne. campagne <laughs> bu ndogoo ba pare. bu ndogoo bu ndogoo doo ko tàmbali. waaw waaye Sonko mu woor moom yaakaar naa ne. Uh-huh. di nga gis problème. beneen bi ban la deuxième problème bi mooy Sénégal xam nga. da ngay gis campagne bi. Ah. équipe B ak équipe B ñooy xeex. waaw bii nag da da ngay gis comment ci seen biir moom ñooy wàcc dem di raak. <laughs> Sénégalais bu wooree day métti day bon xol ah, day métti rek <laughs> gaaw a xeex <laughs> da ngay gis ku naan lu nii rek mu wàcc sox da ngay ñaan cortège bi ci boppam ñooy xeex seen biir. ñooy xeex seen beneen conséquence bi nag moom moo ci gën a garaaw. muy ban mooy candidat bu woor ba ngoon. waaw. di déglu rajo ñu naan ko zéro zéro zéro zéro. <laughs> kooku bu dee nga dogoy zéro. bu dee rek. <laughs> wax nga dëgg de. candidat bu nogoy nen maanaam di nogoy nen it. waaw bu nogoy nen. loolu wax nar a am rek dégg nga candidat waxoon danaa léegi dogoyuma damay continuer. <laughs> macha allah. waaw su temps bi di sonn nag. dina am wax. non temps dama bëgg a ñëw ci assemblée. waaw eh, kii bi conseil constitutionnel daal dañoo def lu am solo. ay muy mooy. maanaam fan yële jàll rek. Mm-hmm. ñoo nekkoon ñoo xam ne sénégalais yu bëri comprendre jàpp ñu leen ñuy dara. Mm-hmm. mais tey conseil constitutionnel mën nañu wax ne bu amee lu jëmmal démocratie Sénégal conseil bi la. moom la dañu taxawal démocratie. Mm-hmm. dañu jël ay décision yoo xam ne vraiment maanaam wane nañ ne peuple bi ak droit rek lañ def. donte nag li gën a naqari sénégalais yi ñoo leen ko teg. mooy candidature Ousmane Sonko bi bokkut. mais boo xoolee sénégalais yi ay démocrate lañ. ndax nangu nañ ko ci beneen côté mooy gis nañ ne mi ngi góorgóorlu di jéem a def droit. waaw comprendre léegi nag kon nit ñi dañ koy dañ koy accepté. Hmm. léegi nag li am solo foofu mooy ñu ngi leen di remercier loolu moom dañ koy wax man de kontaan naa ci Baajo. ak équipe bi mu àndal. Hmm. waaw du question ko nag dañoo dañoo faral. fii wala dañoo farafa mais dañoo wax droit. Hmm. ñu ñu ngi ci. waaw ñu ngi ci waaye nag comme bu ñaawoon ñu ne ñaaw na. bu hmm. rafetee dañuy wax rafet na. ay porteurs de voix lañ. Hmm. dëgg-dëgg euh, waaw góor day yokk ngóora. des na ci kanam nag waaye waaw góor day yokk ah, ngóora. xam nga liggéey bu yëkkagul gërëm ci nit est-ce mais lii am nii décision yi génn nii. Ah, décision dañ ciy gërëm conseil parce que suñu démocratie moo nekkoon enjeu. tey conseil bu jëloon dara day nekk loo xam ne mën naa topp suñu dund à vie di ñu topp ku doyal rek ku jeexal rek maanaam dolli naa ñaari fan Mm-hmm. loolu naa ñetti weer loolu conseil bi bu ko dindee mm-hmm. donc donc ñun sénégalais yi la ko defal kon nañ ko ci war a remercier léegi nag foofu laay ñaane tamit mm-hmm. euh, administration bi nga xamante ne ñoo yor wàllu électoral bi waaw bi gàtt na bette na su doon élection yoo xam ne nag date normale la man ko ma ko jox ma organiser ko mais nag pour ñu wane seen expérience ak seen mën a liggéey nañ taxaw liggéey guddeeg bëccëg suba ngoon. Mhm. ba fépp fu ab sénégalais nekk. ñu organiser ko élection ba mu wote normalement. Mhm. dégg nga loolu laa leen di ñaan. Mhm. ñu xar ci seen tànk tubéy def ko. comme conseil bi def na li mu war a def ñoom nañ def li ñu war a def. bañ a tëdd guddi bañ a nelaw ba def li ñu war a def. élection yi nag préfet yi. ak DG e ak Sénat ñooñ ñoo ko séq. nañ ko defee comme ni mu waree. Mhm. parce que dafa nekk loo xamante ne ngir yàlla bu nu génn ci élection yi di continuer di xeex naan lii leerut ak mhm. fii wote wuñu fii leer na ak fii leerut mhm. loolu nag ci seen loxo la nekk. bal baa ngi seen camp bal baa seen camp ñoom administration bi. suñ defee ni conseil bi def am seen fulla rek doxal rek. jàmm mooy am. macha allah. Cheikh Bara. Euh, démb loi d'amnistie bi ñu voté ci assemblée national mu nekkoon loo xamante ni bi am na ñu jàppoon ni sax ak ndëgg sërëx la woon PDS jiital. ñi nga xamante ne bii ñoom la ñuy wax euh, euh, Pastef ne ñoom la ñuy observer xool nu ñuy toogee noo jàngatee loolu bi nga déggee tamit PDS di wax loolu. waaw démb nag li am bisub kiraama la kiraama. kiraama waaw bisub mm. kiraama la man toog naa di xool télé ba mu yàgg ja lu lu lu jafe mooy ma kaatawaat sama bopp ba xam damay gént. Mm. wala li may jàkkaaroo ni réalité la. ah bon parce que dafa woon naa ne li am maa ngi ko doon xaar ndax xuloo bu nekk ci jubóo lay mujj. Mm-hmm. waaye di xaaruma ko woon ci vingt ans yii. Ah. waaw. damaa defoon ne Macky Sall dana dem bay bind mémoire am. après ñu doog a man a wala leneen daal. mais jàpp ma woon ne. xam nga Sonko te tamit li ciy baatin mooy démb la Sonko def sept mois sept jours. sept mois sept jours le 31 lañ ko mandat de dépôt. Mhm. ba démb di la six defe naa. soo ko calculer mi ngi lay jox sept mois sept jours. ñu mhm. setal ko. sept mois sept jours waaw sëñ nag sept temps sept mois sept jours la defoon ci ci ci géej gi. tukkeeb suñ tubaa bi. waaw juróom-ñaari at juróom-ñaari weer juróom-ñaari fat dégg nga sëñ tu euh, Sonko nag juróom-ñaari euh, weer la def ci kaso bi ak juróom-ñaari fan. juróom-ñaari fan daal koy setal. Mm-hmm. te ñu ko setal parce que lii bu ko jomaay defoon. waaw ñu ne jomaay la. waaw bu ko keneen defoon ñu ne kii la mais li ci neex. Mm-hmm. mooy ñi ko doon taqal. waaw yëkkati accusation yu leen neex teg ko ko. waaw ñoom ñoo dem ba mu yàgg ñu mel ne kuñ xabtal ñu dellusiwaat ne dañ koy setal. Mm-hmm. te li ci neex mooy Sonko sàkkuwu ko. Mm-hmm. biñ ko ko waxee tontuwu leen. waaw biñ koy def dimbaliwu leen ci. ay ñooñam waaw koy def dimbaliwu leen ci. loolu mooy li ci garaaw. Mm-hmm. léegi nag man léegi rek maa ngi koy waxtaan ak sama benn oustaz bi may ñëw. maanaam yonante. waaw fi seen i mbir tàmbalee ñu xeex après ñu gañe combat bi yàlla leeral lépp. dégg nga. yooyu noonu man da ko daan dégg. di ko liir ji téere. waaw waaye jamononte gi nga jamononte Ousmane Sonko. te xool mbiram fi mu tàmbalee. tàmbalee ci dàq la fi ngay liggéeyee. Mhm. nga ñëw am euh, nu mu tuddati. petit fort reste. ñëw ci élection. Mm-hmm. jóge ca ñu dàq tas sa parti. Mm-hmm. isolé la. Mm-hmm. tëj la. nga def greffe de la fin ba nar a dee. maanaam ku la tudd ñu jàpp ko jaxase mbir yi ba mujj yàgg yàlla suñ borom di mujj wëlbatiwaat mbir yi. ba mbir yi mujj ci say loxo. ña la seetaloon ñëpp taxawaat nang ña la nangu laa seetalaat. loolu ci téere laa ko daan liir. waaye jamononte gi ñu jamononte waa ji. war na ko wane. voilà dégg nga. te nag mbir mu kiimaane la. te leneen am na ci mooy Ousmane. maanaam nit war naa jël mbiram rek wekk ko suñ borom taxaw. Ah, waaw waaw. Mm-hmm. Ousmane moom dama lay wax ne ku wóolu yàlla ne moom. Mm-hmm. bëriwul. Mm-hmm. man mii li may dëgër dëgër fit man fii ne ah. ku luqi nguur laa dëgër fit waaye mujj na jamono yi àtte mambay ñaab yi ñu toj otoom bi jaxas seen mbir yi mujj naa sax man wax dëgg yàlla ma ma jaxasoo ah. def naa def naa këram di ko wax noo woo diw teenoo jaar nii maanaam teeñoo dialogue teeñoo maanaam pour jàpp ne lii bu continuer mhm. maanaam musiba am wallahi mhm. loo mën a wax da lay wax lan yusibanaa ilaa ma kataballaahu lana sëñ baara lu yàlla dogalut dong lu yàlla dogal rek mooy am sëñ baara mhm. Macky Sall du dara waaw yàlla ko ëpp doole bàyyi ko rek nii la koy waxee nga jàpp ne maanaam Sonko dañ dana sàggan fii ba gaa yi gaañ ko rek xoola yoonam nekku ci loolu mu saxoon noonu ci la mhm. sax. Mhm. ba ci biir kaso bii. waaw dawut yokkatut néewut wu yaay booy amut gi lenn luñ ko fa mën a yabe. Mhm. te man xam naa ko mu waxal. waaw ne ko danaa dugg ba génn kenn du ma ree. Hmm? waaw Bassirou Diomaye bi muy dugg. dafa dafa wax mu Moussa Sarr ne ko danaa dem danaa dem ba génn kenn du ma reetaan. kon loolu seen gis-gis la ak seeni i pas-pas. te loolu moo am nii mooy Sonko ba xeex ba tàmbalee deux mille vingt et googu ñu tàmbalee def affaire Adji Sarr mhm. ba la vingt cinq ba tey jii ñu toog di wax ak yow mhm. maanaam man ngaa man nga koo yéene de waaye doo ko gis loo doo ko gis loo ko xeebe doo ko gis loo ko yee loo mhm. ko yéeme ndax defu ko waxu ko loolu nag mooy mooy mooy mooy mooy affaire bi ñi ma àndaloon it maanaam mission la boo xam ne man li may ñaan fii ne mooy mooy loi bi jàll man waaw ndax mbir mi moom ci set rek lay mujj te te sang sa bopp suñ naan ko sa wujj di sëlëm doo set. waaw Sonko nag ay wujje ma ko sëlëm ba noppi mu set. Hmm. ban luwaa ngay xaar mu jàll. luwaa bii ñu doon def démb. waaw dama cee yendoo ñan man damaa bëgg mu jàll de. Ah, jàll na. wa na jàll na waaye na jàll ba ba ba ñu validé ko. ah, ah waaw parce que xam nga lu tax. waaw man xooluma ci aspect saayir aspect baatin bi laay xool. baatin. Hmm. dañoo wax ñëpp ñun ñëpp dañ ne ku sa wujji sëlëm doo set. man nag dama ne Sonko ay wujje ma ko sëlëm mu set. waaw waaw démb ñu taxaw fee ñëpp naan waaw nañ ko bàyyi mu dem yéen da ngeen ko ñu doon wax ñëpp. ñoo ko sëlëmoon ñooy wujjam te ñoo ko sëlëm te mu te buñ ko sëlëmee dana set. Hmm. dégg nga loolu moo ci nekk. di wax tamit moom na fi jóge na ko ku sa wujj di sëlëm doo set kon ba mu des Sonko ndax ay wujjam a ko sëlëm mu set. <laughs> waaw Ndeye Khady Ndiaye ak Capitaine Touré. waaw da xool. Mm-hmm. maanaam fitna yi ñu dund ci bi Sonko amee problème ñu ànd koog moom. mën mm-hmm. na maa wax ne tey. Mm-hmm. am nañ ndam. waaw te seen àjjana tey lay tàmbali jëm àjjana. Hmm. aji mi nga xam ne bi mu taqalee Sonko daa nekk ci àjjana ñu koy garder di ko dugal ci hôtel ak fu ne mu dugg fa. waaw di sinab ak loolu mu dugg ci. Hmm. man ngaa wax ne sawaraam tey lay tàmbali jëm sawara moom. Hmm. <laughs> waaw. tey lay tàmbali jëm sawara waaw waaw <laughs> adduna nii dong la maanaam moo tax adduna. booy nekk nekkal ci dëgg dëgg yàgg. waaw waaye ay caaxaan moom moo moo dund gi ñu dunda yam day xëy nag rek jeex. day xëy jeex waaw. macha allah bi noonu la demee. waaw di wax nag sénégalais yi. non ñu ngi naan ñi dee non nangam nangam ñi dee ñun li ñu leen mën a fayee mooy reconnaissant. Mm-hmm. li révolution la. Mm-hmm. révolution day am mort am blessé am lépp. Mm-hmm. am ñu lay saaga di la xeet di la xeex. mais yàlla mooy mujj jox la dëgg. waaw lii day wane ne ci dëgg la nekk. waaw ndax mbiram fi mu tàmbalee ak fi mujj ci dëgg rek dëgg doo nga ko mën. léegi nag li ci des. lu tuuti la. mooy takkaayu dem campagne. dem élection. dégg nga élection yooyu nag am na ñu jóge woon Europe ñëw ba Sénégal bëgg a watee mu kii ñu delloo ku man lu lu mu jaral doomu aadama pour mu wate te nga man ko mm-hmm. wateel même bu dee da ngay dëgg béyee dem ba Europe wate ji defal parce que mooy tax nga wàccoog ñi dee ndax ay nit dangeen ngeen a ànd bañ dee mm-hmm. ñu suul leen mm-hmm. mbir mi des nga non ah damaa tàyyee jóg ak damaa biddanteeg damaa nàngam kon da ngaa wor da ngaa wor ñi faatu pour ñu bañ a wàccoog ñi dee nag il faut ñu matal devoir bi mooy ñu dem wate euh, jour jour 24 boobu kenn ku nekk dugal sa carte. Mm. pour matal mbir mi ñu gagné élection yi dès le premier tour. jërëjëf loolu laa am lu ma ci. dolli wax. Mm-hmm. askan wi. jërëjëf Cheikh Bara. Mm-hmm. macha allah Cheikh Bara Ndiaye borom def gis euh, wax ji am na solo euh, Cheikh Bara temps bi jeex na tàkk wax ñu programme bi rapidement ñu daal di xam programme bi nu mu tëddee. waaw programme bi. Mm-hmm. maa ngi. Mm, fi may jeexale nag maa ngi sant tamit président Macky Sall di ko ñaanal. Hmm? mu dem ci jàmm. président Macky Sall waaw. amiin di ko wax rek Jomaay fay mm-hmm. <laughs> bu dëkkee ci naan Jomaay ak ñi ma dégg ñuy wax naan président da ne Jomaay waru koo doon waru koo doon gis nga Jomaay. Mm-hmm. xam-xam. Mm-hmm. ak dal. ak mat gi yorum réew. bu ci nekk mi ngi ci moom. dëgg la Jomaay ci télé yi la dëkkoon ak rajo yi. doo dégg mukk koy xeeb. dellu ciy waxam. dëgg la ci école yi la jànge doo léegi ko koy xeebe dellu ci njàngam mm. nit nag bu fekkee ay waxam jub na am njàngam jub waaw la ca des buñ ko jubalee mu jub ndax borom xam-xam ba waaja bàyyi daa gaañu ñu war mu war koo doon tubaab bi ñëw di installé nguur gi ci ceddo yi la woon mm. da nit ñi naan kon kii nim tuutee nim sewe mu ne cell rek tubaab bi installé ko ba noppi mu war a doon bàyyam mu ne ko waa léegi nit ñi li ñuy wax dégg nga ko mu ne ko lu ñu wax mu ne ko nee nañ da ngaa mm. mu ne ko bu fekkee li ngay dëkk bi ngay dénkaane mm-hmm. xam-xam akuk njub moo koy yor na fi bu dee nag dañuy yenn dëkk bi dem dama wuti ay ñay ndax dëkk bi kenn attunu ko <laughs> waaw. la. waaw waaye. macha allah matut jomaay matut bu jomaay ñëwee développé Sénégal. après dañuy naan kon président Macky Sall amul vision. waaw. kon na xam ne rek. Mhm. lan yu si banaa ilaa ma kataballahu lana yàlla moo wax jomaa yu koy doon jomaa yu koy doon. waaw na ko rafetal te matal ko. Mhm. te ñaanal ko. man loolu laa koy ñaan. macha allah waaw jokkale ngay. léegi kon euh, suba ñu ngi. Tëngéej. cité mm. sëñ Mansour terminus mm. su 48 campagne bi. seere. Mm. ballonnement. hémorroïde. biir buy jooy. Ah. awra wuy dellu. lekk mu ne tekk ngay dem toilette ngay rek di génn. yooyu yëpp dañ koy faj muy metti sa bopp di la def mu fes alen ngay géex. boo lekkee mu tëw rees wala nga xiif ba mu yàgg jékki-jékki xiifatoo. yooyu yëpp boo ko boo ko jëlee garab yi dañ koy dañ. dañ koy faj ñetti fan. ak lu yokk ngóora ak ak affaire tension diabète ak yooyu mel noonu. ak sangat. wàllu ubbeeku waaw wàllu bayre mm. musulaay mooy ñett takki sungu fi ak sangaayul njare da ngay ñëw ca kër ga ñu seetal la sangat la mm. defal la nga suuru boo demee affaire bi dox dégg nga am nañ euh, euh, loolu àjjuma la ñu nekk foofu samedi ñu ngi pengeej cité man soor sama kër ba tey mm. ak dimanche altine mooy bis bi ñuy faj rab waaw da woote téléphone ne dama bëgg a faju rab boo jël ñu xoolal la nga ñëw ci bis bi ñu fajal la ko ci bis bi rab bi lañ ci bis bi ci benn fan mm-hmm. bu am jëkkër rek lu tëj la loo am mu dem ak ngay gént yi sëy ak lu mu mën a doon boo ñëwee ci bis bi mu dañ talaata ak àllarba ak alxames mhm. ñu ngi asalem de ginnaaw école ma jëy sàll voilà am nañ boutique Thiès mhm. kër gi jàkkaarloo kër Mbay Juuf am nañ ko mbuur ci ginnaaw osan bi mm. am nañ ko euh, Casamance mm. am ko Touba Guédé wetu ko sëñ Bass Abdou Khadir mm. di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñuy fàttali numéro téléphone bi di 77 610 81 81 77 610 81 81 ngeen jokkoog Cheikh Bara Ndiaye borom def gis seen aajo faju ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala ajaratu lekk nga yaa ngoog lekk na sa 3 minutes. du de. cinq waaw cinq jërëjëf ayca ñu ngi lay remercier bu baax a baax di remercier également képp koo euh, xamante ni àndoon nga ak Cheikh Bara ñoom aboo ba gérant ba ca Mbour rek euh, <laughs> Baye Mbaye Moussa Cheikhouna Baye Ali maa ngi leen di nuyu bàcc gajaga nuyul leen ma ko bu baax a baax borom Angleterre Abo Diop alxuraan moom it mu ngi leen di ziar bu baax di kontaan ci yéen ayca ñu ànd ak partenaire yi dellu si wutik solution ci njiital alaaji Sanjoogu Mbeng ak Sohaybu Jóob ngir dëggal ak a wéral ni suñu garabi cosaan yi lu wér la li waral seen boutique solution juddu ngir jële fi bépp xeetu caay-caay ci wàllu fajum cosaan ndax nit lekk alalam joxe ay garab yu wérul looloo waral ci diirum ñaari at yu manqué tuuti seen boutique solution di def ay résultats yu ama am solo biir réew mi ak bitim réew ci garab yi ñu leen di bëgg a limal ndoxum siti amuñu ci moroom hémorroïde bi nëbb ak bu feeñ góor gu néew kàttan ay garab yu wóor te efficace te amul benn effet fer moytu leen garabi ndox yi estomac dañ koy faj ba mu wér garabu asthme bu efficace même boo amee woon asthme bay piqué crise ñëwal fii ci boutique la solution bépp xale wala mag buy gënt di tur ndox ballottement tànk buy xaar ba borom mënta sol ay fermé li jaaxal àddina bi yëpp nag muy raay mu sedd bii ne ci boutique la solution lépp luy douleur ci yaram boo koy raay mes lay def am yeneeni mbir ci biir nag moo tax ñu naan ko raay mu sedd plus jaloore ak résultat yu la boutique solution di def tax na ñi ngi fépp ci bitim réew am na ca France États-Unis d'Amérique Canada Italie Espagne ca Gambie ca Angleterre Allemagne ñoo ngi en face Walfadjri ngeen mën a jot boutique la solution ci 78 426 66 77 wala 75 630 50 50 boutique bi xaatimul listixaarul seetul su ngeen bëggee dégg dégg daal ba boutique la solution juddoo la jaay garab yi bon ak naxaate jeex. ayca mi ngi noonu ñu jaajëfal leen bu baax a baax waaye jaajëfal également suñuy partenaire rawatina nag boutique solution mi nga xamante ni moo nekk ci garab yu baax yi. garab yu baax yi te wóor sénégalais yi ci seen jëmmi bopp ñoo ko waxal seen bopp daal de boutique solution bi ay garabam wóor na doy nañu ndaxte ña koy jëfandikoo macha allah ñoom ci seen jëmmi bopp sax ñooy indi client ya wax leen ne leen garab yi baax boutique solution ci kaw ci kanam. ci maa ngi maa ngi lay fay di la delloo ziyaar ajaratu mhm. euh, di la ñaanal jàmm di nuyu euh, Omar bun Xatab Gueye euh, nuyu Njóogu Meng ak sama xarit bi son yi bu jóob waaw maa ngi koy ziyaar bu baax a baax sama xarit sama doomu baay di dem ba waaw loolu da cee mës a jóg. yëguma ko woon. doom bàyyi gi yàgg na. dama waa xarit bi laa wax. non loolu moom damay leerlu rek nit bu nekkee sa rakk day nekk sa xarit. sama damay leerlu rek. Mm. garaaw yàlla baax. yow nekkoo sama xarit. lu ne mën naa xew yàlla mën na lu ne. yow sama xarit nekkoo sama xarit. non dama nuyu waa Thiès. xarituma jigéen la ñu. Ah, ni ala ci ajaratu maa ngi nuyu waa Thiès kaay nag. benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm ñaanal ko Serigne Sidi mu Serigne Abdou Lahat Mbacké yàlla suñu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak weer defal ko jàmm defal ko njabootam këram gis ko si biir këram te koy ñaanal mboolem xalif yi ci biir réew mi yëpp ajaratu mhm. ayca ci kanam euh, tuuti ñu dem régie jëli ci victime du net loolu la yëgul kii dafa wax xalaatam ci tarixaam bi mu génne ko ah bi moom mooy génnewaat <laughs> loolu kon yow foo ne Adja ah. Amadou Diallo bu wakaam wax xalaatam mm. mu génne ko waaw dictature boobu mooy la waa Thiès wax seen xalaat jigéenu ma jigéen mu génne leen. moom bu dee bu bu bu bu dee noonu la ko jàppee. Hmm. moom rek ay des ci tarixa moom moom rek a ci des di bañ ma jigéen génneel la tarixa ba kii. léegi nag loolu tax mu kii ma jigéen di ko am yu mu koy def ak di ko kii ak yooyu. sa dictature bi nga nekkee nii pour lan la. moo tax ñoo foog ne borom réew mi rek a nekkee li mu nekkee mais borom réew mi am na ñu ko gën a doy waar de. waaw jëm nag moom mii. <laughs> moom it wéet na. ca la jëm de <laughs> ah ca jëm ñëpp bàyyi nañ <laughs> baasan mesere bàyyi la xamoon ni kii la jëm ma jigéen jërëjëf yàlla na yàlla gën a dooleel pression bu ne di ko jot nag waaye dëgëral rek ay doomi mbott ngeen ay ca ñu dem mu hmm. ngi <laughs> ëppali bu <laughs> tey li ñu bëgg a waxtaanee hmm. euh, def naa nag fu nekk làmbatu naa gëstu naa fu nekk jéem naa fa gëstu lu nekk jéem naa ko xool ngir am ci lu ma gën a leer waaye yoruma ko aw ma ko comme awuma ko nag ma sukkandiku rek jàppee comme yàq der wala wax xabaar yu la wóoragul ndax ku ci nekk danaa ne yaakaar naa foog naa xam nga audio bu fiite moom ay sóob la man soo ma yónnoon audio ñu fiite maa la trahir rek waaye du fiite yaa ko génn waaw Amadou Ba bi euh, nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar la wax ni daal daa am audio bu fiite te moom la man nag gëwuma ko ni moo cay wax waaye neen daal moo cay wax ba am na ku may waxal naan ko daal eh, naan assuré leen ko rek bu ngeen ko assuré ba bokkul daal mooy loolu ñu jàpp ni boobu waa conseil bi daan wax ci mbiru Karim ñu dem xooli plateau bi ko teg ba adressé ko comme Amadou Ba ñoom it après ñu dellu si waat jàngat loolu yi nga xam ne commencé naa xew ci Sénégal Ah, am na ba ngeen di waxal nii. déedéet ah, déedéet. gis nga dund mii rek gis nga ma dund des fois vraiment dund ma lan laa ko def. non non parce que saa bi yaa fi tapé tapé mu rëy nii. bu ngeen buggee. non yaa ko teg de. yaa ko teg mais yow yaa transfert rek yaa ko wax de. ah. rajo nañu waaw mais nañu ma nañu ma kaa transfert waaw. léegi on fait confiance enlève la candidature de Karim hmm. Wade. c'est une hémorragie qui est en train de se passer. c'est-à-dire moi il a regretté. kenn du ko dugal ci benn tunnel. bu dugg ci dafa mel ni xam nga pexe suuf bi boo ci duggee xam nga ah, léegi léegi bàyyi ma ah, tënk waaw tënk lool. non yow tënku ragal ngay tënk. nan eh? ma defal la tënk vrai. lii kon dañoo ñoom jàpp ni lii audio fuité la. waaw. boo xam ne premier ministre moo doon wax wax ci ñetti mbir ne invalidation Karim Wade mu mm-hmm. ngeen ko defee di ngeen ci gis seen bopp kan lay waxal man xaw ma ko mais di ngeen ci gis seen bopp mm-hmm. ndax juge yi waxal wala est-ce que waa Pastef la doon waxal mm-hmm. man ko maa ngi koy doog dégg beneen bi mu ne waa ji moom tànc nañ ko xam naa lii moo tax gars yi marche keroog waaw waaw loolu naan soutien te ku soutenirul parce que moo fi taxawoon ne ku soutenirul Macky traître nga. dëgg la waaw boobu sentir ngeen danger. waaw boobu moo ko waxoon waaw. léegi ñu ne na jax-jaxi. Mhm. na jax-jaxi est-ce que donc c'est pas le PM. candidat. Mhm. qui a financé les. Ah! ah. mais je suis en train baax na de. waaw léegi est-ce que c'est pas lui qui est derrière les. Euh, troubles yu mujj yi. Ah, c'est une question. ah ba sax. c'est une question. ba yegg MNF. que tu poses. Ah! waaw. waaw yow kii yu jàdd ko mi nga jàdd ko. waaw mu nga fay dee déduction waaw duuru gis nga duuru. duuru Coulibaly. duuru yaa ngi waxuma on. Oh. duuru Coulibaly mais qui pose rek. ma ne pose la rek. waaw da ngay laajte rek yow question yooyu. Ah, jërëjëf kon mi ngi noonu lii daal la indi tey Omar Bun Khattab Gueye man nag ba léegi gëw ma audio bi nii Amadou cay wax man gawuma ko man naa lu ne mën naa am nag ak it bu ngeen invalider candidat bi du ngeen ko réccu ak it tànc nañu waa ji ak yu baree bari daal yoo xam ne wax nañ ko léegi nag bu ñu ñëwee ci moom laag du moom gëm nga moom laag du moom dafa am leneen loo xam ne dañ koy bëgg a duggal ci bopp nit naa maanaam ay audio yu te loolu moom trahison la ak bon képp la li ma wax biti laa lay wax boo ma de waxoon audio mu ñëw ci man fuité wut maa ko doon jéem a yónnee kenn mu dugg feneen gaa yi di ko paasante ndax loolu nga gëm muy ay fuiteeg président Macky Sall si barki dem dafa audio ñu naan dafa fuiteeg yeneen yu ni mel ndax yàqum der la wala fuite la. waaw ah, benn yàq der man mun naa ko tuddee mais fi may njëkkee mooy euh, peut-être tuuti naa ci wax lii mais journalisme moom au Sénégal école yi ko doon jàngale bu njëkk waxuma ni ni ñu doon jàngalee baaxul de wala boog ñi doon jàngal ñoo mokkalul. parce que ñi fi toog nii ku mu ci ñoom yor nga euh, ay daraja yu bari ci rédaction ñi jiite nan fii jiita fee te du ay médias yu ndaw te koo ci wax mu ne fii laa ko jànge am na ñuy dem bay toog naan waxuma la jàng mais dañuy jàngale mm-hmm. pour man niveau boobu ñuy jaay nit ñi ak euh, dayo boobu ñoom seen débat waroon na weesu lii ñoom bu dem ba toog ci plateau mat benn diis mm-hmm. li gënoon ëpp solo ci seen mu mënoon na weesu audio diw fiite na léegi nga toog yow di naan mun na am ci lay waxal parce que waxul lu leer ak lii ak lay ñoom war ñu woon nekk foofu moom waaw ah, loolu tax pour man débat bi suufe woon na trop léegi ñi doon débat ñoo suufe ànd ak débat bi suufe loolu moom question la mais man ñi toog moom xaaroon naa leen feneen mhm. mais nag dara du la ci bett parce que fi ñu toll bu ñu demee ba mën a descendre aussi baax parce que bu dee ay sot nee nañ journaliste la. non plein la plein ci nan ah. quantité ak qualité du benn. nit mun na am quantité toll nu ko neex mais fekk ab xott bi dox la. ok mais je par parle pas de ay sot. ok mais waroon nan danoo weesu audio diwla la audio diw la parce que tey jii bu doon ëpp audio am na waa PDS yi njëkk a jiiñ hmm. ne dafa am candidat. boo xam ne dafa corrompre waa conseil constitutionnel ba tey mënuñu indil preuve. ñoom waa PDS yi ko waxoon. si ñoom waxuñu ko léegi dafa am ay journalistes yi am fit doon ay ma fit ñoom di leen ko waxal. ah d'accord xam na loolu. di sulliwaat débat bi daal ah, Lamine Thiam bi mu doxee ci dialogue bi. dem na sax ba weddi sax tuuma yooyu moom ci biir waxam. Mm-hmm. parce que mi ngi naan euh, ñun mënuñu mun prétexte la woon pour que. ñu pousse élection yi pour suñu candidat bokk mooy Karim. li mu waree Sarr wax na ça veut dire que bu lu fa nekkul woon la. ok kon lu ñu créé woon la pour mën ko jaay. kii bi pour mun a pousse élection yi. yow gëm nga audio bi. audio bi gëwuma ko parce que aussi hmm. bu dee Amadou Ba ak fi mu toll ci àddina bu doon tey day dox lii hmm. mais du ko lijjant ci ojo waaw du ko téléphoné. non du ko lijjant ci ojo kilifa yi am na nuy doxalee. am na kilifa yoo xam ne waxuma la wujjee seen téléphone yoruñu ko ñoom duñ ko teel seen bopp. Mm-hmm. lu bari duñ ko defal seen bopp parce que risque yi ci ne moo tax. te moom fi mu toll ci Sénégal maanaam ku mu bëgg a fekk fekk la ku mu bëgg nga fekk si. nga ñëw nga fekk si ko. am na question yoo xam ne bu ko doon traité. Mm-hmm. gëm naa ni du ay audio lay yónnee ak nu mu nekkee risque pour di ko tasaare. man bu ma loolu la mais tey tey débat boobu débat bi il est parce que tey jii même bu doon Amadou Ba la. fi ñu toll ci mbir mi. mooy Amadou Ba day nekk candidat Karim du nekk kàndaa bu dee Karim lañuy defal lii ak waa PDS mais yàq nañ ko parce que Karim mënul nekk candidat te Amadou da koy nekk. kon tey jii kan la ñuy yàqal. jërëjëf mais mun na nekk débat politique mais man je ne comprendre des journalistes di wàccee seen bopp ci niveau bi. bu dee entre politiciens lu leen neex defante mais ñi toog nii. duñ ay ñu tuuti ci presse bi. kon waruñu def lu tuuti. aywa bu xajee rek Omar daañu sax defaat tour de table euh, Modou mi nga xam ne ak gars yi xereñ ci wàllum enregistrement nee nañ lii euh, la ñoom ñi liggéey ci wàllu son du audio bu ñu envoyé mais enregistrement la nit kuy enregistré nit yow gëm nga ne Amadou la sa xalaat ci mbir yi. <laughs> waaw sooy bu ko mooy damaa dégg ci wax ji nañu fexe ba ba bu candidature am jàll. donc kon jamono ji ñuy wax ne ñoom ñoo ngi ci assemblée ba am nañ certitude que ni waa ji moom moo doon corrompre pour euh, candidature Karim dina génn mu mu bañ a bokk kon boobu boobu lañ ko doon. teg ci pénc mi parce que bi loolu jàllee gis nañ fi audio boo xamante ne nii dañu ne sunu yaay Woré Sarr moom moo ko def mu ni moom ay pexe lañ doon wut donc même bu fekkee lu am la sax peut-être pexe yi ñoom ñoo ko déggoo ci seen biir rekk lan moo tax ñu toog ba moment bii nii di soog a wax ni ay audio euh, Amadou Ba dafa dafa dafa génn peut-être parfois am na ñoo xamante ne nii euh, bëgg nañu comme affaire yi jàpp nañ ni fi ñu toll nii élection dafa war a am avant le deux rek ñu ne xaaral ñu jéem a xool waat nu ñuy defaatee pour brouiller piste yeeg yi ni mel te loolu moom fa dëgg yàlla xajatu fi son yi bu même bu fekkoon lu am la sax loolu jàll na ba pare te euh, gisoon nañ conseil constitutionnel taxaw bi mu ci taxaw ak euh, procureur bi tamit euh, ni mu defoon jël mbir yi pour ubbi woon information judiciaire bu fekkoon am na évolution ñoom ci seen jëmi bopp ñoom dinañ ko wax askan bi ba nit ñi mën koo jot kon donc ay audio yoo xamante ne nii lu lu lu yàgg la même bu dee dëgg la ni nga ko déggee nga war a xam ne nekkul lu bees du ñu toog ba tey jii nii di jéem a divertir nit ñi wala ñuy ñu focus ci élection yi ñu war a jëm pour ñuy dem di xalaat leneen parce que ñu ko sincèrement waaw. jërëjëf ma jigéen Adja ñi ñu ko seetaanee nii ay journalistes yi ko def nga xam ne ñaari foo leen déggee ñu wax Omar wax na ko da ngay jàpp ne la ñuy wax dëgg la ndax fa ñu toll tey nag teg nañu ab enregistrement ñoom seen biir di dute ñu nag Amadou nag la ñu wax ni moo cay wax. <laughs> Euh, ñi dañu descendre ba trop man man ces débats de bas étage la defe naa nekkul priorité xam nga hmm. dañoo nekk ci leneen loo xamante ni mooy priorité moom la sénégalais yi tal buñ ci doon débattre man mën naa ko nangu mais ci loo xam ne ay audio yëfu yi nga xamante ni euh, intéressé wul sénégalais yi à la limite hmm. man day intéressé ma xaw ma keneen nag xale euh, xale euh, sénégalais yi tal hmm. nañu leneen sénégalais yaa ngi ni siiw ñu dem élection am président bu bees sénégalais doxee na mu war a doxee normalement ñu jàll ci leneen teg fee politique bi hmm. ñu toog di indil ay audio moom laak du moom ak léeg-léeg nag mais bu doon dëgg la wax ji garaaw na de maanaam buñ buñ invalidé diw du ngeen ko rëccu non man yow man yii waaw ah, léegi maa moom sama gëm gëmuma ko dama ni yii yëf yu pour distraire nit ñi la te man lii du ma distraire wax dëgg yàlla waaw ma sañoon sax du ma ci wax nekkoon ay ponkal lañ de da di tour de table rek ma ciy wax ak ku mën a toog ma ni lii du priorité Sénégal d'accord jërëjëf ban jàngat nga am ci li eh, plateau bi teg ay borom xam-xam ko wër nag ab journaliste bu mag jiite ko muy ay seetlu journaliste plein nee nañ ko ci doon wax daal Amadou la ni ko waa ji commencé di ko décortiquer. waaw xam nga yi moom boo seetee wax dëgg fa yàlla ci li ñuy tuddee journalisme léegi ci eh, jamono. Hmm. Eh, ci niveau bu kawe lañ hmm. ñoo ma Omar ñi ñoo nekk ci niveau bu suufee. luy loolu ñii ñi ngi ci niveau bu kawe <laughs> ñoom ñii waaw ñii dañoo xool ni réew mi di doxee ñu teg la ca école yi mi ngi mel ni code de route tey bu ñu la ko jàngalee mhm. nga génn fii di dawal oto topp code bi léegi ñu mbëkk la waaw dañ naan da soof waaw parce que loolu du code bi nekk ci tëli bi waaw bétee ngi nii yor na oto dawalal code de la route léegi ñu yenu la waaw maanaam règle yi nga xam ni moom lañu teg ci journalisme ñi koy doxee ñëpp doxuñu waaw ku bëgg a dox ci réew mi. Hmm. da ngay jalgati règle yooyu. nekk ci leneen réalité terrain bi pour dox ñii dañoo bëgg a dox. ok ñii dañoo yor seen seen YouTube seen cible mooy dañuy def pour wut ay vie pour nekk ci kaw nekk au top. ci yëf yi. Hmm. Hmm. moo tax ñu wàcc lañ jàng ci école xam nañ ko de. du lii waaye ñu ñëw yegg ak peuple bi fii ñu nekk ak ñoom. ci ay audio yu fuité audio bu rëcc mi ngi dox kañ. moo tax ñu <laughs> mi ngi dox mi ngi dox mi ngi dox bi gën a ci Sénégal ci solution fii. parce <laughs> que da ngeen doxee mais mi ngi dox. waaw mais mooy leen dañoo wàcc ñoom <laughs> seen ànd pour mën a dox. yaa ngi mi ngi dox. waaw mais ni nga koy defee xam nga doo koy defee. nii def nii mi ngi dox. Ah, waaw léegi nag mu des nag ñu yegg si nag ci ojo yi ndax nag gëm nañ ko wala gëmoo parce que xam nga mbirum ojo man ba ma seetaanee tel tubaab ñu wan ma lu doy waar boo tax man problème audio moom bu buñ ma tegaloon fii waxu son bu mu may wax lu ne. Euh, du tax ma gëm ko gars yi man nañ def lu ne. ok comprendre mhm. ba tax na bu fekkee ne indil ma ab audio rek buy kii moom wax dëgg fa yàlla mënta tax ma ne kii kat Amadou Ba la. dañuy changer voix waaw parce que mën na ne ko c'est simple mën nañ jël yow sa timbre vocal yaa ngi dégg. Mhm. wax ci keneen ma ma toog fële wax lu ma neex ba noppi ñu def la ko. loolu c'est possible. waaw mën na ne loolu dafa yegg na foofu ba ci image sax léegi am na luñ ko tuddee xaw ma la euh, Moodu mën nañ la ko wax foofu léegi ci sa kii ci sa nopp yi. ah intelligence artificielle am na kii deep fake xaw ma am. dégguma tubaab. Hmm. waaw dégguma tubaab. su ma nee Omar mi journaliste tey ji yow yow yàgg nga toog xam nga ni am na ñoo xamante ni bu ñu làkkee arab xam nga ni seen arab yooyu bu ñu toogee Oustaz Assane du ñu làkk. duñu làkk. voilà lu tax duñu làkk te buñ toogee man di làkk. oustaz oustaz ba. <laughs> waa parce que am na benn invité ataaya invité naa ko nit ataaya Penda Diallo Gueye ni ma Penda Diallo Gueye ni ma. waaw ah. ki nga invité démb li mu doon wax du alxuraan du arab xam nga yow waaw te loolu xam nga yow xam nga yow kooku mënoo ko jugé de loolu Oustaz Assane mi nga tudd moom ci Sénégal waaw Oustaz Assane maanaam ñi gën a dégg araat ci Sénégal la da koy wax waaw Oustaz Assane moom dafa dégg arab nee na dañoo mën a wax di wax rek waaye Oustaz Assane mi nekk seen kër gee ñu gën a aay ñu daa am ku ma laaj mun ma kàddu mag ñi damay gis gars yi di toog man ko ah foofu de pour nga ñëw daa am koy jaar mhm. programme ma ne ko mun ma ñun nag dañuy xam lii man ko ji nga boo ko ibbi woon yàmbalang di nga gis ku am fit koo xam ne. dina fi dina fi ñëw di wax lu mu xamul loo xam ne barke fit rek. ñëw di wax ci maamu jàmbur loo xam ne xamuñ ci dara. ah xam nga sànq wax ci code de dund. non am na ko fi mës a ñëw ci maamu jàmbur ba. waaw bañ attaqué la ñu woote waaw kan la woon eh, waaw ñoo ñu woon plateau ba non non maamu jàmbur ne ci maam ja ba am ki ñu ko eh, pourtant béti béti li nga jaxamu sax après ci la Assane ci la ci la Assane proposé ni te ñu fee bàyyi maami jàmbur yi <laughs> waaw léegi maanaam rubrique bi ñu def ko leneen comme léegi maamu jàmbur boo laal yàq ah. ñu def lii wala buñ koy waxtaay woo sa tam mu toog waaw xam nga sànq bi sax boo ko bàyyiwoon sax amuloon ko ma koy dëggalee barki dama ànd ak Assane ci autoroute bi léegi xam nga bu fekkee ni oto dañoo ran hmm. yow soo bëggee dugg am na lu la code de la wax mooy da ngay fel sa signal pour ah. ñaan ñu fel signal ba sonn kenn mayuñu de léegi ma wàcce verre bi Assane ñaan waa ji waa ji di ko doo wàccee nga ñaan. te <laughs> ñun xam nga loolu du code de doo ñaan da ngeen di forcé ma ne ko ma saa yi forcé wu ma de xanaa gisoo signal bi. léegi nag Oustaz Alioune Sall mi dégg jamono. waaw Oustaz Alioune Sall mi dégg jamono nee na code de la route Sénégal dañ cee war boole. génn loxo loxo <laughs> xam nga xam nga kooku comprendre na yëf yi. <laughs> waaw euh, bi ñu ci tudd. moom porte na plainte. waaw. xam nañ ni ay preuve lañ doon ut wala élément de preuve. Mm. mais ñii est bu leen woo xam nga day journaliste des fois dañuy joué loo xam ne tey jii kuñ ci woo nga toog. di victimiser wu naan mais tooñ am loo xam tooñ la tey ji eh, xam ne tey mi ngi kanamu yoon mais tey bu leen woowoon tey na leen na leen indi leen preuve bi voilà ay preuve lañ doon ut ñoom génneel nañu ay preuve mais nan ko dem jébal procureur ñoom ñi yaa dëgg jar woon toog ci plateau. bu leen leeral ni wax dëgg la. waaw ñu ko dem jébal procureur. te tollootuñu foofu. jàpp nañ dem élection bëri ci des la hmm. yi am nañ yeneen mooy dëgg. waaw yëpp yëpp yëpp amul. mais attention euh, yi kii la. parce que que tamit. ah waaw parce am na ko fi juñoon viol am ko sa éléments yi du preuve yenn yi. waaw jërëjëf kon mi ngi noonu Adja am nañu mbégte démb nag ci commentaire yi bu dee yaa ngi doon liir am ñu ni na nga focus ci kii invité démb bi bu mu la raw xaw ma ndax yaa ngi doon xool takk soo. Omar yi nga doon ah, waaw démb daal li naa. Ah? <laughs> da doon jooy suka lu muy doon. Ah, aywa eh? ñaareel mooy sa montre sa montre bi rafet na dégg nga. macha allah tuddee naa la tuddee naa ko maam Diarra. eh, eh, eh? am danoo <laughs> bi muy jeexal omar naa ko nuyul ma sëñ bi. di de da doon ñaanal nga am borom kër gi. ala ah, ko pour pour bëggoon xam ba xam am na wala déet. ndaw si ne ko amee. <laughs> naan di la doon non non léegi waaw euh, non bu Ousmane Sonko génnee euh, taxé bi jeex na. waaw <laughs> Ousmane euh, <laughs> allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal yéen ñi nu bokkaloon plateau bi également di leen jaajëfal Père Lamine Ndiaye comédien nee na émission bi bu ko raté dafa am ñetti télé. nee bii da ciy seetaan chaîne sénégalaise yi. Mhm. bii Lamine sama grand YouTube la mm. waaw démb moom la ñu talaloon ñu koy nuyu bu baax moom bi ci ngoon di jaajëfal ko ba Kaolack Lamine naan ma booy ak salaareel. <laughs> te ni ki nga yeb bët yi baaxul dawal pour ba eh, Lamine bi billaay xamut kii dawal. en tout ñu ngi koy nuyu ku baax a ngi noonu. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko jaajëfal moom Père Lamine. di jaajëfal képp ku doon suivre bi les émission yéen it ñu leen di remercier ñu bokkoon plateau bi ak du côté de la régie El Hadj Modou Diouf ak Abdou Top Ablaye Diallo sëñ Fallou di nuyu nag Assane Mesere bu baax a baax a baax Assane mi ci bës bi asan maa ngi lay nuyu di nuyu waa solution yëpp ak waa Walfadjri rendez-vous lundi incha allah. boutique solution ñoo leen doon may seen émission Taku Show PMU dafa gën a yomb ci parieur yi dugal Play Store télécharger application PMU Sénégal ngir créer sa compte remplir le bi ak sa compte Wave wala Orange Money recharger sa compte PMU Sénégal ak mënu ñett tomb bi ci kaw application bi boo bëggee jouer laalal bopp fas bi ngir mën a am course yu bees yi Lonase dawal tey fii ñu bind programme ngay xoolee programme course yi ak xibaar bu ne fi ñu bind parier ici fii ngay jouer ci bépp offre PMU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 Macron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam dañu am fayda dañu am fayda